jalha min ahabi sukri ilayka wa ilayhi alayhi salaatu wassalaamu بسم الإله ينملها بلا مناهي ولا انتهاء Bienvenue sur Sud FM. بلا مناهي ولا انتهاء بسم الإله fou, c'est ici. bismillahi rahmaani rahiim. rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli. mbokk ñi dégg asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu. Sud FM seen rajo seen jotaay mu ci de alkitaab ngeen koy am yoor yoor aj mu jot ci waxtu wi dellu si ne ko defal si ngeen ci ànd ak seen mbokk alxaaji al imam al oustaz Alioune Mbaye ak seen mbokk alxaaji Serigne Mbacké Sylla ak seen mbokk Alioune Sall ginnaaw bi ñu sante sunu borom subhaanahu wa taala julli ci yonent bi alayhi salaatu salaam ñaan jàmm ci réew mi ak réew yu ko wër jéglu soxna si soxna yeeg sëriñ si tabaarkallaahu sama gaay ak nit si jóbi toog di waajal seen jotaay bi di tàmbali neuf heures te jeex midi ajuma ji jot ci waxtu bi al imaam al ustaas alxaaji Alioune Mbaye asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. alxaaji Serigne Mbacke Sylla asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. bàyyi leen ngeen nuyoon teg way déglu. tabarakallahu jërëjëf jëkk laa nuyu fay la nuyoo tegale ci waat nuyoo muy ñett. <laughs> di xaar yeneen yu muy ñeent incha allah nuyu waa am di jàmm yeeg am di jàmm yeeg ñi dëkk ci réew mi yeeg ñëpp beral nuyu nag sama xarit bi nii sama cousin bi Serigne Mbacke Sylla ñaan nuyoo bi yàlla na ko fekk ci jàmm. alaaji sëñ Mbacke Sylla jërëjëf jërëjëf oustaz waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu ñoo ngi lay fay nuyoo te di la nuyu di la siyaare ci ajjuma ji di la ndokkeel di masawu coono ci liggéey bi di nuyu auditeurs yi nekk biir réew mi ñu nekk bitim réew di fay nuyoo tey nuyu imaam alxaaji oustaz Alioune Mbaye borom Pikine ak Dalifort ak Kër Massar ñàgg ak ñàgg kon nag ak ñàgg sas Alioune kon ñu del si waat ne la nu jotaay bi tëddee incha allah niñ ko defee rek lañ niñ ko defee woon rek lañ koy wéyale def ko ñetti xaaj xaaj bu njëkk bi di indi suñu laaj nga indi say tontu bu di sa jotee ñoom bi téléphone bàyyi mbokk ñu indi seen laaj ak seen commentaire te gàttal ko bu di seetee fa teg fanweeri simili nag nga jéem a ñëw tontu laaj yi nga xam te ne ñu yomb fi rot yi yomb ñu tontu ko yombul ñu noté ko ba dellusiwaat incha allah asalaamaaleykum Aliou Mbaye xamaas sëñ Alaaji Mbàkke si la ku bëgg a jokkoo ak ñun ku a réew mi woote ci 88 628 98 98 nekk bitim réew ñooy woote ñu nu bëgg a jot ci biir émission bi ci suñu téléphone yi ñu yore jamono jii bu dee kuy déglu rajo bi ñu fàttali ko ne duñ mën a wuyu xëy na bu leen toxol seen ak déglu daal dina coow dem ba loobu maam jaara tabarakallahu fële ca yoonu LG mbaaw ga fekk leen fu ñoom ñëpp jël nuyoo bi teg ko ci loxol sëñ Amsatu mu joxal ñu ko directeur mu joxal ñu ko gaa yi fa nekk yépp loobu maam jaara asalaamaaleykum Madaar tabaarakallaa bi nga xam ne moom la gaa yi di tàmbalee jënd nag bëgg buñ demee ca gàmmu ga euh, bool boo xam ne xaw naa taq ndaw ko ndaay nopp ci rek Madaar ñëw daal di koy fomp bam set wecc Madaar asalaamaaleykum fay industrie tabaarakallaa ci ndox moom nga xam ne mooy waalo nga xam ne foofu moom kumar naan kumarul naan yéen ñu jënd ndoxum waalo tabaarakallaa kon nag yóbbaale leen ndox ca gàmm ga waaw seen karokor xaadim tabarakallahu asalaamaaleykum eh, jàkk yeeg jumaa yi léegi karol rek ci kaw ba ci suuf même ci kër yi karol ba ci suuf asalaamaaleykum seen karokor xaadim pënc mi nga xam ne mooy bon daa yóbbaale bu ñuy màggali di gàmm ji pënc asalaamaaleykum yaakaar naa ñu fàtte tàngal bi nga xam ne ku ci nekk da koy def ci poosam bu dawalee tuuti màcc ndax mu bañ a gëmmentu tom kon tàngal béegee béegee asalaamaaleykum gaa yi ne nañ koy xalam di ca jaayu yéen a ànd ak nun ànd ak yéen olof da ko tere tabaarakallahu masha allah yi di gàmmoo nag ci biir réew mi ak ci bitim réew région yi département yi arrondissement yi kër yeeg ruq yeeg jax jumaa yi yéen ñëpp maaleykum wa bi dalika falyafrahu wa xayru mimma yajmaun xam naa d'ici quelques heures rek incha allah tabarakallahu gan nga di wàcc ñu koy teeru ñun ñëpp laqad jaakum rasulun min anfusikum mboolem ko xam ne ki yaa ngi koy waajal wala ngay togg cere wala ngay waajal loo mën a waajale gàmm rek yéen ñëpp wa afrisu sajadaati takriman xoolee seen montre neuf heures ba ñor ñaar ñaar fukki simili juróom saana jot ma dellu ci si bi tënk nuyoo yëpp noonu rek nga xam ne yéen ñëpp kenn ku ci nag gi ci boppam Oustaz Alioune asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. Alaaji Sëriñ Mbàkke Sylla asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah wa barakaatu. tafaddala mashkurayni fa jazakumullahu xayra. shukran jërëjëf Oustaz ci nuyu solo yooyu sëñ Mbàkke yaakaar naa ni. li nga tourné salaam moom. waaw matale na. waaw matale na wax dëgg yàlla. matale na matale na. li li naan fardu kifaaya. isa qaama bihil baat. saxataanil baax ñu baax yi mooy yóbbale nuyu bi. kon jërëjëf Oustaz ci nuyu yu sell yooyu. Euh, daanaka day tut junj na li ñu fas yéeneen waxtaan. mooy kii ci ñu doon teeru yàgg naa quelques heures ci des. wala mhm. yaay jour si mooy trois bokk. wala mu jour si mooy deux. waaw mooy trois. kon yaakaar na sang bi léegi waaye oustaz bala ñuy ñëw ci jikkoom yeeg yi nga xamante ne moom lañu war a waxtaane mhm. ndax moom neex naa waxtaan lool alayhi salaatu salaam mhm. nga junjal ñu. visite président bi. ci dëkk bi ndax nga bu njëkk colonialiste ñoo fi nekkoon. di tere gàmm hmm. di sikkal gàmmu mbaa dégg baare nit ñu bañ caa dem. di tere màggal doonte ñëwuñ ko teral di wut ay. ndax buñ demee ñu yee leen léegi nag ñu neen la ñu gis ñu wax dëgg yàlla bépp événement bu am. ñu gis suñuy njiit baax. faran fa ñaari fan wala ñetti fan. avant ak ñoom gi wane na ci lañu bokk. loolu ma bëggoon nga njëkk ko jàngat. alhamdulilah wasalaatu wasalaam ala rasulillah naa leen. ñaan borom saa tala mu defal ñu tawfiix. amiin yaa rabbal ñuy tooje jamono yi mu bañ a nekk waxtu yu niil. xanaa mu nekk waxtu yoo xam ne ñëpp lay amal njëriñ. Mhm. jàng mi ñu ci jàng ak njàngat mi lépp nekk loo xam ne lii. bu nu ko gisee man caa soppi koo soppi koo ca bu ñu ci gisee man caa yokkoo nu yokkoo ca euh, bu njëkk ni nga ko waxee léegi dañoo nekkoon ci loxo yu colonialiste yi di naxanteeg ñoom ñuy naxanteeg nun léegi nag mënunoo tànn président daanaka te tànnuñ ko ci suñu biir waaw daanaka mën a tun ko kon ni ngay bokke ci njaboot gi nun lay bokke ci njaboot gi njaboot gu ma gu mën a bokk ci njaboot gi nag genn njaboot gi dong la ndax njaboot gépp njabootu ki ñuy gàtt loolu di ko séentu la sallallahu alayhi wa sallam kon muy président muy ñu ko opposé muy ñu mën a doon jamono ji bu tollee fii rek na ñu wóor ne foofa la yëf yi nekk ñëpp daje fa kenn ku nekk yëg ne tribune yëpp a nga foofa parti bu dem da nga fa am ab tribune kon uute ko ni ma ko waxoon suñu mbàkk si lépp bi ëpp nay def te itam dem fa ci boppam gaañ a gis la say gaay ya fa nekk gis la ndax mboolamu lu muy bari bari kenn ku ne ci politiciens yi am nga am nga fay aw gaay waaw ku fi nekk ci politiciens yi rek boo fa gaay kon nag bu ngeen demee yéen itam rek tubarkalla ngeen jàpp ci loolu góor <laughs> góorgóorlu ndax waa ji daañu ci wax suñu tubaab ne quoi ah, man de Mbàkke damay nuyu rek ñu naan ma sant ba <laughs> Mbàkke damay nuyu rek ñu naan ma sant ba. <laughs> maanaam daal xamu ko. waaw man daal bu nuyoo rek ñu ne ko sant ba mu ne baabul maziyati xus. est-ce que hmm. ku bëgg boo nuyootee kenn lox sant wa hmm. dangay ngay féetewoo naan ki nga xam ne moom ngay fekk xus jàppal ci lii. Hmm, Ah, waaw. <laughs> maanaam dëgg la bu yëwee loxoy neen day tax dañ naa dañ la yaay kan. Mm-hmm. Mm-hmm. waaye babal masiyati xus minal hadiyati yaa babal fadilati fi sirin wa fi alani. macha allah yaay xus. Mm-hmm. waaw tey ku nuyoon sëñ Mbàkke ak fukki. fukki po coupons euh, yi. <laughs> yes ne essence essence la bëgg a xam bon bon bon. fukki bon essence ak juróom. nga nuyoo ko sëñ Mbàkke mu ne tëll nga def kooku ñaar yoon. boo bu ñettee boo ñëwee boo ko jub rek mën sama waa jàng ne boo a gëjee ñu namm la waaw waaw <laughs> dañ doon waxtaan loo keroog ca ca zawiya ba hmm. bi ma demee burdu mbokkum ñox sëriñ Lamine Ñang defe naa noonu la su ma jub mu ne yàlla rek ngay def jàkkaarloog moom laaj ko mu jox la nga jàkkaarloowaat moom laaj ko mu jox la nga jàkkaarloo laaj ko mu jox la nee na nit nag hmm. nit <laughs> boo jàkkaarloo moom di ko jox si hmm. day ubbi kanam. Mhm. nga ñëwaat mu gën a ubbi. Mhm. nga ñëwaat mu gën a ubbi. Mhm. waaye boo laajee laaja laajaat bu la séenee. nee na bu góorgóorlu góor tëj kanam. <laughs> dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la joxe joxe bu sax boobu moom moom la moom daa mel ne moom la nit mënul rawatina aw ñu koy laaj. suñu borom nag man ko ba tabarkal. waaw moom kay day xëy saas Aline. sotti yooyu. dëgg la teewaa yooyu ci ñi nga xam ne ñoo politiciens yi. rawatina njiitum réew. Euh, tabarkallahu yu ama am solo la ci ndaj yu mel noonu. dëgg la euh, da fa dem wax joxe ñu wax jox la waaw dañuy wax nga wax joxe ñu wax jox la waaw loolu am na ci solo lool tabarakallahu ndax dina tax nga xam fu yëf yi toll yaakaar yaakaar waat tabiwaat wallaay ndeysaan mais comme duñ ñu ko juñ lay si mbàkk ci ci politiciens yëpp bu ñu waxee kon pouvoir wax opposition ndekete kon itam baabul masiyati xus waaw nekk ci opposition itam dutee fa nga bokk wala même boo bokku bokkul itam xus googu kon ñëpp lay laal waaw moom kay est-ce que ay kettan la nga am rek lu am solo la de mhm. lu am solo la. ndax bés yu mel noonu ak man di nekk rek. ka ki nga xam ne moo cee ñëw féetewoo xus minal hadiyati. yaa babal fadlati dafa am ci solo lool. tabarkàlla te dëkk yi ñu koy defee. dëkk koy defee. amoon na organisation bu muy doon boo xam ne dëkk yooyu panaal lañuy doon. waaw. seeni mbéj dana yaatu. seeni tali rattax. seeni dëkkuwaay noonu. ndax ñi fay dem ñëpp bu ko defoon ko dem dool ci sa loxo sa hmm. hmm. yeeg kalandoo yeeg sareet hmm. yeeg développement lay doon ah? dëgg dëgg ma ne kon développement dëgg la dëkk ba parce que développé saas Mbàkke dama jës bu la xulum dé jës bu la sax kay jës bu ah, ma xam nga fukk lu man anfaqa parce que baatu anfaqa dirhaman waaw ndeke ah. gàmmu kon dafa soxla dépense. waaw gàmmu dangay ngay dépenser. waaw <laughs> <laughs> fokk lu man ànd ba fii. Mm-hmm. xam nga ba dir yéen kon gàmmu. Mm-hmm. dafa soxla dépense. Mm-hmm. te it bu dee gàmmu kii ak gàmmu gu nekk dépense ba muy soxla. dimension bi gàmm gi jël. waaw ak dépense bu ñu soxla. Mm-hmm, mm-hmm. ñun sunu gàmm fi ne bu ñu amee un million cinq cent rek jàll ñu. xam nga sunu sunu gàmm moom. waaw daa mel mu daanu la neex na dëgg. <laughs> neex na dëgg tax koo jafe lool. waaye waaye gàmm Iran nga xam ne. waaw te situation yëpp da nga fees kaar kaar. def na waaw waaw. waaw. léegi nag dimension yi di yokk nag. Hmm. mu tax baabul xamul mun na ko ci. fa kullu man anfaqa fa kullu man anfaqa fii. Hmm. naa mu ne mawlidihi lmusharrafi. Hmm. maalan bi xayri sarafi. ñu naa mu ne walaw bi xadri dirham. dirham ndeysaan xam nga baat walaw bi xadri dirham. ñii gàmmu ji ñëpp bu fon keneen nga bu 500. buñ demee teg ko ci kees. allahu akbar. kuy gàmm ji ku ne nga bu 500. ñu dem teg ko ci kees. nga xam ne ñu dugg ci waawoon ñëpp. danañ dugal ci kees ga 500. loolu xaalis la waaw mm-hmm. bu ñu demee bay dugg Tiwaawoon noonu ci kër sañ Moussa Moustapha Moustar si du ma Moustar si daati ñu teg foofa kees ga mm-hmm. kuy dugg rek ne ko ci daga jàll ci la mm-hmm. milliard waaw jox bu mooy gisee ni saw gisee aj gi waaw très bien tax yi nga xam ne foo mën a jaar dana am looy dugal dugal ko ci kees kees saw jeen waaw waaw léegi bu fekkoon ne tey màggal gi wala tey ñu waajal Njaasaan incha allah bu delsee wala tey ñu ngi ci Medina Baye wala ñu ngi tey Canaba mm-hmm. dëkk yooyu yëpp tey bu fekkoon ne nit ñi teeloon nañu comprendre woote mag ñi mm-hmm. xam ne nii dañu jàpp kon kenn du la nga doon wax nii kenn du nuyoo sëriñ loxoy kese. lay ndeysaan alxuraan naa yeetum rasul. Mm. lay ndeysaan faqaat di moom nii day sadaqa. ba ne dañ naj waa comme sadaqa. mu ngoog loolu bu doon loolu lañuy déggee nañu rek kon bon tey kon dëkk yooyu yëpp dana gën a développé. ba fu leen puus ñu dem sëñ fi nga dugg noonu dafa am solo. te itam da nga koo taqale ak euh, laaj bi Oustaz Mbaye ubbee jotaay bi. Mm-hmm. muy visitu président foofee. Mm-hmm. daa mel ne bi mu ñëwee toog Oustaz. Euh, waxtaan ak moom ci bis boobu day xaw a yomb lool ndax itam loo xam ne mënees na koo déggee nu ne nag mm, ndax la mu fa def eh, daara ji ci benn côté mën nañoo wax ne waw góor moom kat sagal na daara ji ndax loo xamante ne mag ñee waroon a daje wala seeni taalibe war a daje ñu koy sase état taxaw defar ko ci état boo xam ne ñu wax ne état bi laïque la eh, buñ ko waxee ñaare dañ ciy dégg ne état bi kat amul sañ-sañi tabaxi jumaa ñeneen yi ne amul sañ-sañi defi nàngam kon ku jël volonté wu defal dara lislaam Euh, defal ko diine defal ko mag ñi daa mel ne dana jaadu ñu ne la jërëjëf ci euh, taxawaay bu am solo. waaw dégg naa ko dem ba mu ñëwee Ndiakhate suñu bàkkee. mu naan lii. bu leen jàpp ni waajib la. Mm-hmm. waaw force dañ ko war a def. Mm-hmm. Mm-hmm. nun noo taxaw di ko def. parce que euh, ñun xam nga daal mu ngi noonu rek. mooy loolu. loolu tam am na ci solo ci ci ci ci ci daara ji. sëñ Abdoul Ahad. jamono yi ñuy inauguré marché bële ca Touba. Ocass Ocass. dafa waxoon baat bu am solo. ba mu naan ab mu naan Abdou Diouf jërëjëf. daf na ko nun nag suñ jërëjëf jii duñ ko waxal ku ñu defalu dara. waaye ku nu defal dara nag. nu wax la ko. kon nag dina ko jërëjëf. te te waaw baat boobu kenn ko fàtte. wallaay wallaay mu ne ko suñu jërëjëf ji. Mhm, mhm. duñ ko waxal ku ñu defalu dara. Mhm. ku nu ko defal nag nu wax la ko mhm. mhm. muy lu am solo oustaz te itam loolu day dimbali baax a baax euh, kër yi kër yi diine yi ndax kër yëpp soxla nañ daluwaay yu mel noonu mhm. am na ci ñuy laxasaayu di ci ñot ñoti seen bopp waaye bu ci état dugalee loxoom daal ay la yowén manees na ko cee sant gërëm ko euh, ndax yitte jooju nga xam moom la ci def kon visite président bi oustaz euh, ni ko oustaz Mbaye waxe am na solo léegi kàddu yi ñuy joxlante oustaz ci jamono na ba noppi am na ñoo xam ne dañ doon xaar ba dem ci bi waaye tey jii ñu ngi ko yoon ndax ko fa jiitoo bu ñëwee ñu fàtte sama jaar <laughs> damay bàyyi ba mu jaar ma ma ñëw jaar sama jaaru bopp hmm. bu njëkkoon bu ñuy wax gàmmu dañuy wax ne booba tubaab bee fi nekk Cheikh Sidaaj Malick euh, woote ko ci stratégie euh, fukki fan yi njëkk ci weer bis bu set mu dalal benn groupe na kuréel ñëw hmm. waxtaan ak ñoom hmm. di def benn message boo xam ne yaa ngi koy jàllale ci suuf tey nag message bi day jàll ci kaw bu ngoonee tele boo jàpp ñu tegal la burdu ba amoon démb. waaw euh, politiciens yi nga waroon a yóbbante ay nuyoo ñëw di la seet si. Mhm. taalibe yi itam di la may nopp. autorités yi ñëw toog message su burdu ak euh, waajtaayu gàmmu nii lan lañ ci mën a jàngi waaw tabarkalla message su burdu ngi nii. ya karbana ya wasi'al karami farrij lana farrij anaa kurbanaa yaa waasi al karami karami looloy burdu daal daal dégg nga daaj ba dégg nga sëñ Mbàkke nga dugg message su burdu mooy nit ki ñëw ci tàmbali burdu ñu jàngal ko luy bakkan mm-hmm. ca jeextal burdu ñu jàngal ko luy ñaan mm-hmm. li ci diggante bi nag tagg fi saaba yi tagg fi yonent bi ànd na ñoom tagg fi alxuraan tagg fi sunna hmm. ndeysaan donc message yooyu bu gàtteeg bu guddee lépp hmm. bu ñu nee burd bu ñu demee burd wala ñu dem gàmmu war ko caa jële hmm. ku ñibbisi soppiku waaw ku ñibbisi rek soppi ko dëgg la dëgg la waaw jërëjëf oustaz bu ko boo soppi soppiku yooyu ngay soppiku nag hmm. su fekkee at mu jot bu la yàlla dimbalee nga dem hmm. bu fekkee at mu jot boo ñëwee indi jëli jikko hmm. léegi tey kenn du la gën a ti ndax waaw innama anta mudakkir wallaahi ma yaxshaaha wallaahi ndeysaan wala innama anta mundiru man yaxshaaha ngeen baal ma tubarkàlla imaam jërëjëf jërëjëf oustaz sëñ Mbacke njàngal bi am na solo yàlla yàlla fay leen allahumma amin euh, léegi nag ñu jublu nag ci ki nga xamante ni moom la ñuy ga teeru ndeysaan ndax mooy seydil wujud oustaz da danga daan wax ni ba àdduna bi paanee maanaam mu mel na bato bu ñu defar teg ko ci géej gi mu war a jëm Casamance wala mu jëm feneen mhm. suñ demee ba yëg ni paan na mhm. dañuy yóbbu sous-marin yi ñu dem dépanne ji ko mhm. catalogue bi nag ma nga ca ak ni ñu ko defaree du loolu nga daan wax. dafa yàqu léegi ndax gox boo duggee rek gis fa solution may ci moom ci wàllu jikko. walaay ndeysaan ak lu ci moom. loolu la yàlla tënk ci benn baat. incha <coughs> allah. azizun alayhi ma anittum. Hmm. allahu akbar. feebar bi leen dala ko métti. <laughs> Eh, waaw feebar bi leen dal. moo hmm, ko métti. feebar yi nu daal oustaz Alioune <coughs> mooy alal jaral ñu ñu tàggaloog suñuy bokk feebar la bu doy waar bu mm-hmm. doy wut alal jaral nu nu saaga suñu dëkkandoo mm-hmm. ci ci jaaxle ci àdduna jaral nu rendi sa jabar <coughs> laa ilaha illa allah dégg nga ci benn ci suba dégg laa bu nit sax ah, jabar ji ëmb ba mi ngi ci juróom-ñeenteelu weer. Ah, waaye lii tee ñoo taxu ah li baax na man ne suba laay dem. Hmm. ah jaaxle ci jaral nit mu jul jëkkëram dugal ci néeg pétrole taal. lay ndeysaan oh. Oh. ko. nga xool ñaar ñooñu jëkkër ak. jabar waaw hmm. mais jëkkër lañu ko defoon bii jëkkër a ko def. Hmm. jaaxle ci àdduna tax nga fekk nit ak jarbaatam ñëpp nga bokk ren di yóbbu seen i nag. Mayca <laughs> kay. Aziizun alayhi maa anittum. Mm. Mm-hmm. waaw mu fekk ñun ñépp ñu fex wuti kër seytaane. Mm-hmm. pour jàpp ne foofa neex foofaa baax foofa la. Mm-hmm. sunu ba ne laqad jaakum. pour lan bëgg ñu transhumer. jóge kër seytaane ñëw këram moom alayhi salaatu wa mag ñi ko defoon jig na leen. ñu ko def ci àdduna fu ñu ko mës a def jig na leen la jiga ji mooy topp waajee penc mu mel noonu nga xam ne fi ne diine ñu bëgg dërëham man ko waaw dërëm ñu bëgg mu man diine mu diine aada not fi sharia waaw ba penc moo xam ne nit mën naa am diine mhm. waaw am xam-xam. waaye ñu ne ko sa sant wee tax duñ la may jabar. waaw ak li ñuy woote ci eh. màggal di ko woote ci gàmmu di ko woote ci conférence. ba léegi ñu ngi dund loolu. ba léegi aadaa ngi man diine. dem nag dangay dem nakk sax ba ñëw kët. toog sa kër. nit ñëw ñaan sa jabar nga ne ko ni nga sant tax. dama la gën sama doom gën la. la ilaha illallah baat bi loolu lay tekki. waaw dañ ko dut firi loolu lay tekki. dañ ko dut firi waaye loolu lay moo ne borom. ba mu nekk lu tax sujjóotu la Adama def na ko ana xayrun minhu dama ko gën. Hmm. waaw message boobu mooy dox ba léegi. mooy dox ba léegi. Hmm. Hmm. Oustaz Alioune. azizun toog ci buntu këram doomam romb ko. sollu aggul ca uum ya. def boppam neen. def ca kawar yu bokkut. yu ca bokkut mu ne ko maman yaa ngi jàngi. yaay jee wax loolu ni déedéet papa ji mooy wax lu doom ji. la ilaha illallah te te waroon na ni ko wëññikul. waaw naan ko maman yaa ngi jàngi. bu demee ci école ba lu fa xew ñu ñu ñu di jiñ ko enseignant yi wala ñu jiñ ko penc mi. Aziz sunu Ali maa anittu. na ma de. waaw. te docteur bu mu nag bu ñëwee. bu ñëwee. Hmm. raouf rahim. ndeysaan. raouf oustaz Alioune hmm. mooy dafa ñeewante ba du pikir kenn du ñakk kenn ndax day bañ deret génn ci yow wala mu jam la lu métti hmm. te bëgg laa faj docteur boobu rahim hmm. dafa bari bëri yërmande ba du opeere def la gaas nga nelaw mu xotti si biir bi génn la fa nekk moom du du def loolu da ngay jàkkaarloog moom mu faj la ci xol waaw faj la ci wér-gi-yaram waaw waaw moo tax gaa yi di ko wax. Hmm. waaw yaa akramal xalqi. ndeysaan hmm. noonu la tudd. yaa ma xam wala ci hmm. <laughs> te maa ngi dégg si mbakk si la ci fajar. wala fajar gële. te yaa akramal xalqi. de façon bee. mu wax ne yàlla dafa bind ay nit bind ay yonent. yonent bi ma nga bokk ca kursu bi yonent ya. xam nga ba demee suñ course yi ñoom Abdoulaye Mbaye Peex ak euh, tawarkal la ñooñu dañ naan ñi ngi takk mbayaar yi mm-hmm. am déet mm-hmm. ñi ngi takk par yi ak fuutanke yi ñi ngi takk fuutanke yi mm-hmm. waaye xañ kañ lañu takk ponkal yi ñoom ñu mujj a takk muy naaru góor yi ah, naaru góor bii la nga lañ leen di takk <laughs> waaye doo dégg par wu dem te naaru góor yi wala mbayaar mu ca dem boo fa demee doo gis biti mukk lay kookoy Muhammadun. sallallahu alayhi wa rahim. Hmm. waaye nag oustaz Ali. Hmm. bu fekkee penc mi nii la feebar yi mel. Hmm. ba noppi fa in tawallaw. wallaahi. ñu ne ko mënoonoo faj. danañ la gàmmul danañ la siyaare. lii lañ ko doon lépp waaye nag mënoonoo faj. parce que nous sommes dañu toll ci jamono joo xam ne. nouvel ordre mondial munu jël kon nag mënunoo faj sa atte dafa sévère li nga fi indi dafa métti li ngay tere dafa bari waaw sunu borom ne ko loolu lañ wax mu loolu lañ wax de mu ne ko faqul xas bi yàlla waaw nee leen xaalis xaalis taxum woon a ñëw waaw ah, bar ah faqul xas waaw buñ xamul yaay kan waaw xamal sa bopp te ñëw ci yàlla aka man nitam tabaarkalla Mbàkke mm-hmm. aka man nitam aka man nitam donc koo koy ki ñuy ki ñuy séentu mm-hmm. léegi tey mu wàcc si mm-hmm. bu ñëwee fu mu nu fekk jëlee nu fa fa mu nu jëmee ku gën waaw ndeysaan ndeysaan waaw sallallahu alayhi wa sallam juudun waa loolu dafa neex loolu te am solo wallaay ndeysaan kon nag ñooy dem te ñëw rek dama ci incha allah <laughs> bu leen toxal si nag déglu gaañ na ni ma dem te ñëw fa may jëm incha allah du fa yàgg ay jégleeral ni yëgtal dégtal rek tabarakallahu mu ñi ànd ak ñun ci jotaay bi nga xam ne tey xaw na ñoo takku ci première deuxième ba troisième ak sponsor yi ak ñi nga xam ne nee nañu àjjuma ji ñëw la ñuy ñëw الدهور سالم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا سيدي يا أبا زهراء منقذنا مما نخاف من الأضرار والسقم jërëjëf ci ànd bi ak Sud FM seen rajo bi ñu xoolee seen montor 9h jël na ba teg juróom fukki simili ak ñett ñu del soit ci jotaay bi kon tabarkalaaw teggi suñu baaram fi ñu ko tegoon oustaz Alioune lu ci tegee. jërëjëf yow lay sant baax ci am solo yooyu nga xamante ni moom nga doon jé déggal mbokk yi waaye dañ doon waxtaan day sëñ Mbàkke mm-hmm. jàngat mu firil ñu laqat bi. Mm-hmm. ndax laqat jaakum bii nag bokkul ak bu. 2017 2018 la. bii moom bii moom moom ñu naan message bi jàll na. ndeysaan nekkate ko ñun dañu feebar. waaw. te yàlla bëgguñu lool. ndeysaan ndax rauf rahim. mënoon nañ jox xel rek pare ci. ndeysaan waaye ku mu jox xel jox na lu mu joxul wenn mbindeef. tabibu ahli saqami la ko maam suñu tubaab waxoon. radiyallahu taala anhu oh. yemu ci mu yónnee ñu ay ndaw. Mm-hmm. yemu ci mu jox ñu ay message di ay téere ni xool leen. ndeysaan bi muy prophète yi jeexee muy ñu yónni ay awliya. ndeysaan di sarse ay nit di boromi xam-xam ñuy wax ak nit ñi. dëgg dëgg fañ tawaloo kon nag yàlla mm-hmm. dëgg jaana mocc na. Mm-hmm. dëgg dëgg fañ mm. bu ñu lànkee nag ñëw la. faqul xasbiyallah. <laughs> allah si bàkke. Mhm. wallaay ni nga ko waxee firi mu <laughs> yees pexe ñu noonu. léegi nag faqul xasbiyallah ji oustaz ñëwal gi laa comprendre lan lay doon. ndax itam damaa gis ne yonent bi eh, won nañ ko ginnaaw fa in tawallaw ji am na ay yooni yoon. te mu mel ne ku dëpp. léegi faqul xasbiyallah ji nan lañ koy déggee kon. waaw mooy ni ñu koy déggee mooy man xaalis tax ma fën a ñëw. Hmm. dox seen diggante ak seetaan moo fi taxoon a ñëw. Hmm. léegi nag dem naa bu ma leen bàyyeeg moom rek lu ne ma def leen ko. Hmm. mooy sëriñ Cheikh nee na dañ fi bari fi nekk nii. Mhm. talibe seetaan yooyu. Allahu akbar. seet afaarit la leen tudde woon. moom la doon bëgg a wax waaw. afaarit yi afaarit yi waaw. muy ponkali jinne yi nee nañ ñoo fi bari. <laughs> tey sëriñ Cheikh. Oustaz deret ju bari jii di tuuru. la foo xool deret tuuru. Hmm. bu bu set boo taalee sa rajo. doo toog ba ngoon jot te déggoo lu mel noonu. kirim ji ju rëy. waaw. maa wax lii. jàngalekat boobu di Serigne Cheikh noonu na. radiyallahu nit ñi bu ñu leen bàyyee ku ne lu mu ci penc mi. day mu jàgg nature bi. mere mu ne. nit ñi seen wax yi baree. dara amu ci fulla ak waxante lu bon. nee mu jàgg nature bi mere nu. loolu dama sunu ni ñu na nature bi meree. mooy kenn duutu lekk xaal bu neex. yëppay lewet. mu ne mu ñuy lekk xaal xam ngeen ne xaal yi ñuy lekk. bukkut ak xaal ba ba woon. wallaahi allahu akbar mu ne boo ma santim pom de terre bu ñor. boo ko daan lekk li nga yëg bokkut ak bu tey. Oh. nga xam ne yéen neexoon day tàmbulee naqari. mu ne kañ ngeen gëj a lekk ñambi ju neex. pulo <laughs> waaw. sëñ Cheikh ko laaj keroog. mu kañ ngeen gëj a lekk ñambi ju neex. waaye suñu Mbàkke dugalal foofu sa xalaat rek nga xool. allahu ñam bi daawul des ci ndab boo ko masaan ruut ci taal bi boo ko génnee du des soo ko masaan ruut it ndaw ku naay duñ ko desal loolu la yonent bi bëggoon moo tax suñ mbàkkee bu comme comme gaañ nag ne noonoo mu ne ko fa in tawalla faqul hasbiyallah. walaay ndeysaan walaay ah ne leen man su ngeen ma fayut te ngeen ma jox dal toppale ma it daan yàlla doy na ma. maa ngi ñibbi. loolu <laughs> baar. <laughs> maa ngi jàmm ni ñooy. mais gis ci aussi Oustaz wax ci loolu ci nature bi. Mhm. mais Oustaz dëgg wér la. ndeysaan. boo musaan di béy. waxi mag la. Mhm. dëgg la. pulooxi bu waxu jooju nga daan am. waaw. nga xam ne génn puloox gi dana génne juróom benn reen. waaw. biir reen bu ne mën a dem mën a dem. da nga gis nit mu muy lekk ñaambi ji ñurut. loolu na léegi loolu wan ko ñàkk a déggal yonent bi moo ñu yóbbu loolu. Eh, ak ak ak wax ju baaxut di ñuy waxante. Hmm. waaw nee xanaa loolu ñu eh, nekk ay jullit la yàlla di sanctionné loolu. nga xam ne même yeneen réew yi bu fekkee ñoom ña nga koy waxantee ak ñàkk a déggal yonent bi li ñëkkut ay jullit tax. Ah, teg environnement bi du leen sanctionné noonu. teg na ca nee na. Hmm. nii nature bi mel nag. Hmm. jullit ku dul jullit ñoo ci bokk yi mu ne yonent bi nee na balaa jagati dana dem ba isaa dellu siwaat mu xaw a jagaat tuuti jóge fa mu dem waaw mu xaw a jógaat fa mu dem donc loolu lu am solo la. wallaay ndeysaan wallaay wallaay wallaay. allahu yàlla dimbali. amiin yaa rabbil aalamiin dégg sunu téere bii. amiin amiin dégg sunu mag ñi. dégg sunu yonent bii. jël lim nu jox. lim nu jox nu teg fële. Hmm. topp ko kott kott yollu yolli. wallaay ndeysaan. acca jërëjëf xam naa. ñu def benn tampon daa mel ne alsaan ngi junju ne bereef amut. waaw waaw waaye xam naa ñi teg suñu baaraam te ñëw jël auditeurs yi. incha bu leen toxal si nag déglu fañ jëm lu ñu fa yàgg ci kattanu borom subhanahu wa taala بصلاة منك دائمه قسم من أعظم القسم jërëjëf ci ànd bi ak Sud FM seen rajo 10h jot na ba teg juróomi simili comme comme bref yi tabarkallahu te oustaz Alioune tënkaloon na ko xanaa rek nu tënkee ko noonu. daal di ñëw nag ndax auditeurs yi kon su boobaa tey danañ am 30 minutes yoo xam ne ñaari minutes rek a ko manqué. mu ngoog ko nag kon nag xanaa may leen nopp rek incha allah yaakaar naa si Mbacke. waaw waaw ñu daal di ñëw ànd ak ñun ci jotaay bi ci 88 600. 828 98 98 33 841 22 33. kii nag saa bi xoolal la a doon. Imaam eh Ali dal Abdoulaye mu xaraboon salaamaaleykum. waaleykum wa waaw. def waay. bu baax sama xarit. Ah, moom day tëli. Euh, waaw moom taarka la. waaw. <laughs> waaw. bu baax waaw bu ngi lay fay mi ngi lay fay. Mbacke waa Diourbel ñu ngi maa ngi leen di fay bu baax waa 94 point 2. waaw. léegi de Mbacke waaw leer na fa moo tax maa ngi leen nuyu bu baax. daa changé thème léegi de. ba fa ba fa rajo bi leeree ba léegi. Mbacke daa fi ne loo ci bëgg a wax. dañoo baare suñu carte membre jeex na njaayatuñ. déet am nañ ci soxla defuñu. déedéet ah. ayca maa ngi dugg jërëjëf. ayca bisimilah. bisimilah. te maa ngi jëloon euh, ci soratu nisaa yi. soratu nisaa yi. nisaa waaw salaam maa ngi ci waaw 93. Mhm. bëggoon jeexalee nag ci 94 jours. d' accord. ci inna allah inna allah kaana bimaa ta'maluuna xabiiran foofu laa bëggoon jeexale. d'accord mais man bu ngeen commencé man xatal naa mu ñu man foofu laa bëggoon commencé. man xatal moo ñu. waaw ma bëggoon laaj sallallahu alayhi wa sallam gën di mu def. moom tànn bi ñu ko tànn ba teg ko vraiment koo xam ne mosul am jafe-jafe àdduna du manqué daanu manqué dépense wala daanu sax liggéey. man moom ban nit la woon ban kan la woon. waaw loolu laa bëggoon xam ci sallallahu alayhi wa sallam. d'accord jërëjëf. tukkulóoru bàyyi jërëjëf 88 628 98 98 33 841 22 33 foofu ngeen di jaar ngir bokk ci jotaay bi. waaleykum waaleykum salaam wa rahmatulah. waaw. Salibe Malayka. waaw Malay na nga def. <laughs> maa ngi koy. yal na yàlla nangu siyaar. di kontaan ci bis bi. jërëjëf ana sëriñ bi te danoo woote rek di woote di suñ suñ ci bis bi. ndeysaan da ngaa amoonum tudd lay wax Oustaz Mbaye ne day bëgg ci tuddam u weesoog teewaay gi nga xamante ne. te teewaay rek doyoon na Oustaz ñëw mooy. ndeysaan. macha allah ndeysaan jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf. tubarkàlla Malay kan la oustaz euh, taalibe boobu nekk fële ca Malika ñu ngi koy nuyu baax a baax ñaan euh, bébé bi suñu boroom def ko mag oustaz Alioune jëral ko. amiin yaa mhm. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. yaaram na nga tudd fay woote. Moussa ñu ngi leen di nuyu. Euh, lay fay. nuyu Oustaz Alioune bu baax a baax. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. di rafetlu waxtaan wi. jërëjëf Diallo. Eh, di leen jottali nuyoo waa Sànnaar ak waa Mbaxana ak yëpp. ndeysaan jërëjëf. ak suñu benn wóolare Thierno Moussa Ndiaye. Mhm. bu nekk euh, Mboro. ndeysaan. moom tamit waa Mbaxana la mu ngi Mboro. ndeysaan. tey nag euh, bi dafa jëloon ci suuratul Ruum. suuratul Ruum. aaya cinquante quatre ak cinquante cinq. Hmm. te wax oustaz tamit mu defal ñu benn njàngat bu ndaw rek ci Seydi Hadji Malick. yàlla alhamdulilah. Mhm. jërëjëf. jërëjëf jërëjëf euh, Moussa Diallo Sànnaar maa lii ñu jaajëfal ko moom itam daal di xaar keneen. waaw waaw. yow mhm. allah. waaw nuyu nuyu bu soxna si. ok Oustaz ñu ngi lay fay nuyoo. weeru gàmmu gi. jërëjëf man la taalibe Cheikh Sofé Cheikh Sidi Mokhtar. jërëjëf taalibe Cheikh bisimilah. dama amoon benn laaj buntu démb burdu bi. Mhm. ci ci jihaad. Mhm. mooy fi euh, fi muy waxee wasal Hunaynan wasal Badran wasal Uxudan. Mhm. fusuula xatfin lahum adha min al waxami. ndeysaan. buñ ci ustaas mu ne kii rek beneen laaj bi ngeen baal ma rek mooy. iraniyaan mi dañ ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa jiite yeneen yonent yi julli mhm. te boobu joxaguñ ko julli julli boobu mu julli ban julli la d'accord waa kay di leen nuyu di bi jërëjëf soppeb seex si di Muxtaar dugg gi am na solo te ñëw na ci biir bordu imaam yi mhm, jërëjëf ñu ngi koy nuyu baax a baax a baax euh, ci laaj yooyu di leen xaar ci 88 628 98 98 jëlal kii asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatulah waaw sëriñ bi. waaw ah, man la xalilu kan def kan kan kan gars yi ngi nii. ñoom ñoo la wax ay paa lañ xalilu yooyu. yow mi sax paa ma. ah laa mais ñoom nekk wuñ ay paa. Ah, non Oustaz Mbaye moom paa la waaye paa la ci saayir rek waaye ci baatin. <laughs> bisimilah xalil bu fi yëkkatee du baax baat bi neexut. waaye kay waaye kay gars yi may ko was waaye kon ma tey yuuxu naa. waaw man kay macha allah <laughs> man a bëggoon moom kay bàyyi noonu rek bàyyi ma leb ko rek mbàkkee may ko ma Yunus. Yunus waaw. ah waaw sama yunus aw cinquante huit di fati laaw bi rahmati fadi zabika falistafu wa xayru mimma yajmaun wallaay ndeysaan bëggoon soog moom ñu si d'accord ñu nuyu waa ci defeen diaspora wëpp ñoom sëñ Pape Mor Diaw soxna Ndeye Camara seen Joro Sylla avant groupe bi yëpp ndeysaan <laughs> sama nijaay Ibrahima Diop ak sama mos yoon Samba Fall. asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah barakaatu ñu itam Omar Ndiaye Angleterre suñu mbokki baax yooyu. ndeysaan waaw ndeysaan ndeysaan. ñoom El Hadj Doro Sylla ak Aji Pape Mor Diop. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. bisimilah bisimilah. waaw Fatou Seye sama bopp Fatou Abou Khassim même si ñàkk lool. ah. Khassim Khassim Mbaye. waaw Fatou Mbaye. waa kay Mbaye bisimilah Mbaye. mbay xaw na déplacé wu tuuti daa mel réseau bi day manqué. daa sant mbay. waaw ah mi ngi kuréel kuréel ji de ay ci rek. mu ni. nee na réseau bi dañoo am ay jafe-jafe. Ah, waaw. jërëjëf yal na yàlla nangu siyaar. jërëjëf ndeysaan. Oustaz ba ba ba loolu topp di gërëm rek ak di leerlu maanaam liy xew ci suñu réew nga xam ne ñaari fan yëpp yëpp nit nga dégg taasu nit yëpp nit nit loolu laa wax lislaam arfaanu këram. d'accord arfaanoo na bu ëppee. rey bu bari jamono bu tollee fii. am na ay bëgg ñu war def pour ñu yàlla saafara foofu bi. waaw daal laa ci leerlu ba xam. Mm-hmm. Mm-hmm. jërëjëf Mbaye. sëñ xaas mbay mbàkke bawal tey sa réseau bi daa sant mbay waaye ñu ngi lay jaajëfal laaj bi ñëw na nee na oustaz mbay ray gu bari gi ci penc mi fi tollee ndax lislaam préparé na ay ñaan wala lu ñu war a def ba ray googu jóge fi mhm. mbokk mi salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah bismillah bismillah sëriñ Mbàkke waaw soxna si maa ngi leen nuyu di leen siyaar jërëjëf jërëjëf euh, di leen gërëm yéen ñëpp wax dëgg yàlla alhamdulilah tubarkalla di ndeysaan jërëjëf jërëjëf. Ah. Mhm. Euh, man dafa laaj yu ma doon laaj. waaw noo tudd ñu ne. Euh, euh, Adja Marème maa ngi Belfort Flash. bisimilah Adja Marème. doom mhm. bi yow mii laa ko bëgg a laaj. Mhm. sëñ la xanaa da nga am formation journaliste. d' accord loolay loolay macha mi ngi indee laaj ci sa waxtaan yi wax dëgg yàlla am na solo trop. te xam naa ni bëri ñu am. diplôme journaliste war nañ jàng si yow wax dëgg yàlla macha allah. yal na la yàlla taxaw. amiin amiin barka la bi. amiin yàlla euh, beneen bi mooy euh, démb dikk ci ak bi daaw dama déggoon am euh, laaj yi nga doon laaj. bi mhm. si doon laaj sam papa. Mhm. ku bëgg a gàmm sa kër. waaw ni ngi koy defee. waaw léegi nag boobu ba léegi nag maa ngi siy xalaat. waaw ma xalaat nag ñun ñun sénégalais yi fi nekk nii mu bëggoon réunir xale yi. defaral leen gàmm. léegi ma doon laaj su ma leen su ma leen kii su ma leen boole nan laa koy defee daal. d'accord. liñ ci liñ fiy jàng liñ fiy euh, waxtaan ñoom ñëpp jàng nañu alxuraan macha allah. Mhm. dañu bëggoon xam daal ni ñu ni ñu koy defee. incha mhm. allah. Mhm. voilà loolu daal moo la sama laaj maa leen gërëm di leen sant. jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf soxna si euh, Mariam jërëjëf tabarakallah 88 628 98 98 asalaamaaleykum. salaamaaleykum. waaye salaam wa rahmatulah. bu baax. yal na yàlla nangu ziar. def nañ ko àjjuma ji. jërëjëf ñaan yàlla ñu bàyyi ñun ñëpp. amiin yaa rabbi. suñu fan jëkkee suñu bakkaar. amiin amiin amiin maa ngi leen di ñaanal yàlla fay leen. amiin amiin amiin nga xam ne moo yor fay. amiin moom lépp te doyul ko dara. Mm, dama laaj ba mu soow moo bëggoon laaj. na nga tudd. maa ngi tudd Abdou Salaam. Abdou Salaam. macha allah maa ngi woowee Dakar. bisimilah Abdou. jamono yi fi ñu toll nii. Mm-hmm. dañuy doon jamono ju doy waar. Mm-hmm. bëggoon naa oustaz daal fàttali ñu. Hmm. lan mooy baatub jullit. Hmm. jullit. Hmm. kan ci doomu aadama yi kuy wooye boppam jullit. kan mooy jullit daal. kan mooy jullit daal. d'accord ak yan condition la nit wala wala remplir. nekk jullit. mooy kan mooy jullit naa waaw. jërëjëf. Abdou Salam yal nañu am salaam ñu ngi jaajëfal ko Imaam lii 10 jot na ba teg fukki simili ak benn. ngeen fukki ak juróom-ñeent. incha asalaamaaleykum. maaleykum salaam. yaaram na nga doo fi woote. waaw ñu ngi lay ziar nag yitte yi. ñu ngi sant alhamdulilah. man la Abdoulaye Guèye. Abdoulaye Guèye. waaw ñu ngi leen di ziar bu baax. yaa Abdoulaye ñu ngi ak yitte yi. alhamdulilah Guèye. ñu leen di ziar di ziar oustaz ci weeru gàmmu gi la ñu nekk. Hmm, Guèye Guèye di sëñ Mbacke Sylla. jërëjëf di ci ziar suñu waajuru jigéen soxna maam sa Diouf. di ci ziar suñu soxna tam soxna Fatou Lo ak hmm. njaboot gi yëpp. Hmm, waaw di ci ziar jullit yëpp am di ñaan suñu borom defal ñu ci tawfeex bu baax a baax. amiin yaa rabbi amiin fekk ay at yu bëri suñu borom nangu jaamu yàlla yëpp. amiin waaw di rafetlu tam waxtaan yi baax yi ngeen ci def oustaz ñu ngi koy lu ci fajar gi jàngale yu am solo yi mu ciy def. <laughs> waaw ñu ngi koy teewlu chaque jour am na solo lool te ñu ngi ko ciy jërëjëf bu baax. jërëjëf Guèye. waaw gannaaw loolu aussi dañu amoon benn laaj bu ñu bëggoon a laajte rek. Hmm. ndax tey dañu mas di déglu ci waxtaanu suñu saam muy leeral maanaam euh, xam-xam yi xam nit ki moom la war avant muy tiri alxuraan mais jotu koo wax muy wax ne daal yaakaar naa fukki xam-xam ak ñaar yoo xam nit ki war na ko tënk avant muy mën a firi alxuraan. mais jotoon a egg ci xam-xam yooyu nag ñu doon daal ñu doon ko laajte ba xam. xam yooyu lan la dox. waaw laaj boobu la ñu amoon ginnaaw ñu ngi leen di jërëjëfal bu baax. jërëjëf jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal baax a baax te di ko ndokkeel ci duggam bu am solo boobu sëñ Abdoulaye Gueye. Imaam li noppi na ñu ngi koy ndokkeel mbokk mi salaamaaleykum.

waaw ñëpp yal nañu yàlla bayal. amiin yaa rabbal alamin amiin. waaw waaw waaw jërëjëf jërëjëf jërëjëf. jërëjëf ñu ngi koy nuyu di nuyu waa Trésor yëpp ak waa port di espace ay jëlal ko. waaw kañ ak suñu mbokk ma suñu dëkkandoo ba. kan kii sa waa ji jëlal ko. asalaamaaleykum. waaleykum yaaram na nga doy fa woote. ah tukulóor de retour. waaw dañ ma wax ne ma leeroon laa ko ban laaj. bu mu bi. waaw. sallallahu alayhi wa waaw leer na de moo ne. waaw ah, ñun de ñoom ay ca leer na tukulóor mooy ndax yonent bi daan na am ay jafe-jafe eh, léeg ñàkk dem. maanaam ak dund ay kii yooyu. ndax dafa koomaloon wala koomalu bu fekkee koomalu ndax na ñoom jiite ñoo amoon koom wala amuñ ko nan la def ba am ndam gën ci bu mu am pour mën leen jiite. waa ji ba ñu bëri nangul ko. aji tukkuloor baax na. voilà loolu moo tax di bu baax te sponsor yi ñu bu baax a baax ci jamono. waaw kay loolu jar duggaat moom. jërëjëf jërëjëf. jërëjëf Dora. ni lay def tukkuloor vraiment. bàyyi bàyyi sama tukkuloor yaram yee tàng day waajal ah, lay def ba dem ngi ci yoon nag xanaa doo fa amul nag yee ñëwagul. <laughs> est ay jafe-jafe yoon nag salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. waaw kay Daara. Ah, waaw Aliou Mbacke na ngeen def ak coono. sant ku ñu bind rek. amiin loolu de lu baax la. <laughs> di leen ziar bu baax a baax. jërëjëf jërëjëf. alhamdulilah. macha allah. ñu ziar Abdoulaye Gueye Mate Libé Ciss. ñu ngi koy nuyu bu baax bisimilah. na nga tudd. ñu ziar euh, Abdoulaye Gueye Mate Libé Ciss. Abdoulaye Gueye nga tudd Mate Libé Ciss. Abdoulaye Gueye waaw. waaw koy Gueye bisimilah Abdoulaye. ñu ngi lay ziar bu baax a baax di leen dëkkal. jërëjëf Gueye. di ziar Oustaz ak mboolem jaam yàlla yi. alhamdulilah ndeysaan. yéen dëkkal rek ci yor yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. alayhi salaatu wa salaam. di wax jaam yàlla yi leneen. Hmm. képp ku bëggee yóbbu yàlla Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam. mbëggee gi na ànd ak yar ak yër. Hmm. yar ak. ak yër ak yërlu. ak yër ak yërlu. waaw njàng daal. voilà. ayca. parce que yéen bi kenn day bëgg ci fan paloon. sallallahu alayhi wa waaw comme ni ñu ah, eh, eh, eh, waaye nañ taxaw teewlu nag. Hmm. nañ la bëgg taxaw teewlu. parce que yéen bi léppam. macha allah. ndeysaan. moom mooy échantillon boo xamante ni mooy premier échantillon maanaam lépp ay échantillon ñuy wane. Mhm. moom mooy échantillon bi gën a rafet ci échantillon yi. Mhm. kooku yëngu yàlla Mouhamad. Mhm. kon côté boo tudd rek loo soxla ci modèle rek. ndeysaan. boo tuddee ci yëngu yàlla Mouhamad sallallahu alayhi wa jox la ba ci gën. jërëjëf jërëjëf Abdoulaye. kon jàmm yàlla nañ taxaw solo ci bëgg yonent bi. jërëjëf jërëjëf ndeysaan lu am solo la indi muy fàttali Oustaz Alioune ak wax jëmale ci bëgg yonent bi alayhi salaatu wa ñu xaar keneen wala egsi na. waaw egsi na asalaamaaleykum. waaleykum salaam. kooku la sëñ Alioune. yaa sëñ a soog nag bàyyi waaye baal nañ ne baal nañ la mbooj baal nañ la bisimilah. waaw maa ngi nuyu tamit seen bàtt ak seen Alioune Oustaz toog waaw waaw man maa yaa ngi fi. déedéet ah, ñëw ci kii da ñëw vacances. Eh, eh, eh, waaye ndaw moo tax nga soj <laughs> waaye baal yi ngay bës yan ma de tey tey xamatoo lu la te waxal bisimilah. <laughs> yaayar ma bi xam naa téléphone bi am na bouton am ci waaw ay bismillah leer na léegi. waaw moom mooy euh, ay avocat daal lu ko islam gisee. avocat métier avocat. waaw bi ci mhm. ñëw sax li ci islam wax daal. d'accord. waaw maa ngi tey tey nag dinaa ci boole ah eh, boo ko ci <laughs> da ngaa yow da nga ko jëndee ba. pourtant nag. léegi dama daan boo waxee lu ñu bëri. mais yan ma boo daan nekk bitim réew da nga leen di sànni xeer naan ay soo yónnee duñ la woo duñ def nangam tey nag da ngay nuyoo rek siyaar leen. tey nag maa ngi fii moom. Ah. <laughs> waxal jàmba ñibbi rek dégg nga. moo gën de ay waaye yow. maa ngi nuyuwaat ko baax ko ñëpp vraiment kontaan naa trop maa ngi sama réew maa ngi sama xeet. ndeysaan ñëw macha allah góor la jàmb marhaban marhaban. <laughs> jërëjëf yaat ma ndeysaan jërëjëf Mori Diouf suñu xarit bi Mori Diouf. tubaab bi mu leen nuyu baax maa ngi koy fay ku baax la. <laughs> Mori Diouf suñu xarit tubaab tuul. jëlal kooku. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. yaaram na nga defee woote. allo. waaw. bi de boo ko waa. waaw baal ma nga wàññi rajo bi tuuti rek wàññi ko tuuti. waaw na nga tudd. Ibrahima Maroon. Ibrahima Maroon. waaw. lay fay baax a baax. waaw. muy waral bi ñuy bi xaaba rabbi mu sabbirani ala balaayika ak loolu yarax si dabo ay kër salaat lu akal bari yëpp ci seen ay yàlla. ndeysaan mu taxaw waaw. Hmm, ndeysaan ñu baax leen jaaro ndax suñu ñëwee bàyyi xelal. Ah. Hmm. ñu dañu dugg rek mais ñu ngi teral bu baax a baax nii si mbàcc la ak ba am ndam li war bu baax leen ko baal. jërëjëf Maroon. Maroon jërëjëf. Eh, di nuyu suñu mbokk moom Ibou Ngone Mbengue. waaw ndeysaan ku baax la ku am yëpp moom. soppe bu baax a baax El Hadj Ibou Ngone. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. Fatou Mbacke maa ngi leen di ziar. jërëjëf soxna si yal na yàlla nangu ziar. maa ngi tudd Fatima xam naa bu baax a baax a baax. jërëjëf jërëjëf Dramé. di si Ustaz. Hmm. a wér tax tout le temps dañuy kontaan pour di leen. xam naa. comme yàlla dafa dogal ñu ñu nekk ñu yenn la ci njaboot si alxaaji Maalik mhm. bokk tam di nab nab yi ci ay bindam mhm. yàlla dogal ñu gis ni si alxaaji Maalik moom bu weeru gàmmu ganasee moom du la taami lu dul pour di keneen bind comme mhm. mu bind burtu moom te moom day teg li bind lépp doonte ñu ëpp na dayo waaye dafay teg muy waxtaan ak burdu muy jàng burdu mm-hmm. yaa dogal burdu tam nekk fukki bunt sa du mu ci jàng mm-hmm. kon comme ñun yaa ba tudd te burdu lu ñu neex la mm-hmm. uh, ñu bëgg ko Oustaz Alioune Sall moom mu ñëwoon ci buntu ñaareel bi comme maam fee xaajiment bi ñoom chaque jour dañoo ci benn bunt waaye Oustaz moom mu jàpp lañ ci benn bunt bi mm, d'accord ñaareel ñu ngi commencé ci lakini nakamati vizuri katika sehemu nyingine inadhiri sahizi yanihana masha Allah mingi mhm. darame darame wayi wala tuzawwajta qabla al-mawti naafilatan wala tusalli si yaakaar wala usuli mhm. jërëjëf macha allah bu ko yóbbu ñu ci leer parce que moom leer la nga ñuy yokk dégg. jërëjëf ginnaaw bi ñu gën a sant leen te di leen jaar bu Fatima Eh, sigil nga Dramé Kounda yi. ok yaakaaroon ne moom. Eh, yaakaar naa mboroxe lay mën a lekk. gëj <laughs> naa saarum de. <laughs> ah Dramé si si moom bëgg nañu mboroxe de. <laughs> jërëjëf Fatima Dramé. jërëjëf 88 628 98 98 33 841 22 33 Mbacke wuyul kooku. asalaamaaleykum asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. kii nag euh, xaritu borom baat bu neex boobu la. Oh, Moussa Fabine ah, Mbaye. ah xaritu seetal lii rek. xaritu borom Moussa Fils Mor laa xam naa kii moom xolam du neex. xaritu borom ñàkk mais Moussa bul tax ma bul bul tax ma yuuxu. tuut tuut tuut. ah ah kay ah kay ak ma ciy bëgg. non léegi daf may supporter. oustaz kay ñëwagul waaye Mbacke léegi dama jël. oustaz moom mooy xam naa euh, moom daa xam dëgg dëgg baat bu neex lu muy tekki rek. yow rek jërëjëf Alioune Mbaye bi ko naan baat bi daa neex. six. sama xutba sama xutba jumaa bi passé. Hmm. dama jël dama jël tafsir oustaz. allo ah, waaw waaw waaw waaw ñu ngi lay fay ñu ngi lay fay. ñaanal Sénégalais yëpp ku ci war a dem gàmm yàlla nga àgg jàmm. amiin amiin Moussa. rawatina nag waa Morolan bi ma dëkk. ak waa Ndiaye Olof yi séeréer yëpp parce que ñoo jaxasoo benn commune. waaw góor waay siis. la ak Mbaye. muy góor. yéen wax na rek yal nañu yàlla may ba ñu àgg ci jàmmaraat. Mhm. lépp lu waay ñaan yàlla nangul. amiin siis amiin siis. te dama dugg si waat ak Baalu ak géej ñu waa siis gépp ak Morolan. ak waa Pambal ak li wër Pambal. jërëjëf gis nga dégg madame Diallo. madame Diallo waaw xam naa léegi mu dugg sax. salaamaaleykum <laughs> salaam wa rahmatulah. waaw waaw kay yaaram na ngeen def. alhamdulilah pour dugg dugg nga tey. ci Aliou Bata lañ koy Ba. Aliou Bata. Aliou Bata. Bata nga xam ne Barça nga sant.

war am jafe-jafe war walu am jafe-jafe. d'accord loolu laa laaj oustaz incha allah. jërëjëf Barça. kon ñoom di leen di leen gërëm. jërëjëf. seen sax di leen mënta jàmm di leen sax ci yéen. amin amin yàlla nañu koy am ñaan jàmm yàlla nañu jàmmal ñi nii yéen yàlla waaw mi ngi lay dégg daara jàng lay xaar kon. wax dëgg fa yàlla nag. Mhm, jërëjëf jërëjëf. waaw maa moom lu bëree bëri bëri. jërëjëf jërëjëf. waaw kon Sall la Mbek Mbacke Sène la. jërëjëf barsa Barça. Eh, Imaali jërël. jërëjëf mbokk mu baax moomu tubaarkàlla kon ak Barça mu ngoog Aliou Barça mu ngoog 88 628 98 98 33 851 30. 22 33 22 33. ñu ne ko. ñu ne ko asalaamaaleykum. asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah. sëñ Mbacke Sylla. alhamdulilah sëñ Mbacke Sylla. Serigne Mbacke si la ko jëm tëj Japon. sëñ Sëñ Mbacke moo ñàkk caaxaan. yéen leen ziar bu wër. jërëjëf Sëñ Mbacke. di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal mboolem ku may dégg sama kàddu daal. wallaahi si la. di ko ñaanal bokk si gën gépp daal. jërëjëf si la. bëggoon ukaan woon kootu wunduma wala ukaa tabuma wa bana fara ko ma kan wala fa taw lakum namu lorot. Asalaamaaleykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Wadduha waaw ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax sëñ Mbàkke tey. sëñ Mbàkke daal mooy jàkk jàkk dëgg rek. parce que borom parce que day na na waar ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax 88 628 98 98 33 841 22 33 des na ñeenti minutes. di nuyu Adja Ñima Camara moom mu ngi fële ci HLM Grand Médine suñu yaay jooju suñu xarit suñu soppee ak sëñ Aliou Sall Safiyet ci jàmmalaay ak waa jàmmalaay gépp dañu leen gërëm ci burdu yi. macha allah ah, buur bi am na solo bu bu dem solo populaire yi buur populaire yi. metaan yow daa mel ne. dégg naa la nga yaa ngi ko waxtaan rek. way yu neex la yaa ngi koy toj de. way yi may way kay Mbacke. ndeysaan ak a neexoon tey. ndeysaan mais il faut nga ñu indi ñu ci benn enregistrement. nga teg ko. waaw ma teg ko waaw. wala bu gàmm gi ñëwee nga ñëw ma invité la xamtu nga woy. <laughs> non dama koy toj tasar. oustaz bi rek déet. ñëwal rek <laughs> oustaz de nee na nii. nee na non non de waaye ñëwal rek ñëwal xamtu nga woy. waxoon yow ngeen wax xaaral rek lii de temps yi boo gisee yi ma ñu koy génnee. Hmm. kenn mus koo gis kenn mus koo mu kéw kenn pirate. waaw sëriñ bi na ngeen def coono. ñoo ngi ci jàmm ba alhamdulilah. Eh, ndeysaan mi ngi lay fay. suñu waajur la. ndeysaan aski moom moom dañ koo bëgg rek. ndeysaan bëgg nga ko baax. dañuy teewlu dañuy teewlu waxtaanam bu baax a baax. jërëjëf jërëjëf. waaw ak sëñ Alioune Mbaye. ndeysaan jërëjëf kii nag sa xarit la. waaw la. waaw Assane Samb kër Assane Samb kër Babou Ngone ndeysaan. waaw ñu ngi lay siyaar bu baax a baax. jërëjëf Samb jërëjëf. yow moom kay boo sa xarit rek ma xam ne yow la. waaw moom la de. Samb. ñu ngi lay siyaar bu baax a baax si la. jërëjëf jërëjëf Samb ak Samb ak Sylla de seen xarit moom xam naa nu koy arbitre. dëgg la waaw mu ne mu ne. ak Sylla ah seen xëy def naa ne jar naa arbitre. Eh, moom xam na li yàlla dogal ah. <laughs> eh, nangu na ko. ah waaw nangu na li yàlla dogal. Eh, ah déet kon nangu yaa nangu wala moom moom moom nangu. nangu. Hmm. ah nangu yàlla dogal nangu nga li yàlla dogal wala nangu woo. nangu yàlla dogal. ay ca kon doxal. te bis laa ñëw ci laaj bi. dañ doon dañ doon siyaar rek. <laughs> Hmm. dem na. wallaay wallaay dem na keneen ko ñëw nuyu ko. asalaamaaleykum. Ah, mooy doon bisimilah bisimilah. waaw Doro na def. ñu ngi sant rek alhamdulilah xëy nit nii. alhamdulilah naka gaa yi. waaw ça va muy jàmm bu baax alhamdulilah jërëjëf ñu ngi ñu ngi lay fay si la. ba ba mu ngi alhamdulilah ñu ngi ñaanal waa Sénégal yëpp ñu gàmm ak jàmm. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. waaw ñu ñu waajal gàmm yi ni ko ñu mënti gàmm ji ku ci nekk ñu ngi koy ñaanal mu dem si jàmm egg si jàmm fekk fa jàmm. amiin amiin yaa rabbal aalamiin amiin amiin. yàlla mën na ko yàlla foog na ko te yàlla na ko wàll bopp. amiin amiin amiin. waaw bu rafetlu bu rafetlu encore rek jotaay bi bu baax a baax a baax. jërëjëf jërëjëf. Eh, tey rek di fàttaliku rek ñu sàkku ñaan rek si umma bi yëpp daal hmm. dafa mel ni soxna Zeynab Fall démb moo dem quarantaine jours am. ndeysaan. te waaw ñu ngi ko baal. nag yàlla gën a yërëm. waaw bi ñu di nuyu nag euh, njaboot bi yëpp di nuyu groupe yëpp euh, diaspora rek euh, jërëjëf ku ci nekk ci li nga nekk yàlla na fa jàmm wàlla fekk. jërëjëf jërëjëf. waaw maa moom maa moom benn laaj rek bu ma su ma benn mbokk laaj ñaar laaj boo xam ne benn jotuma ko noté mais benn bi daal naa ko laaj ba ñu jàpp ñu ci. Mhm. bu ñu maam bu Samb yónni dem te daa biir dafa bëggoon xam ñaari xare yi yéen a ci doon xare lan moo sababu sababu ñaari xare yi Badar ak. Euh, euh, Uhud. Badar ak euh, Uhud wala. waaw nee na fàtte naa ba. Hmm. ñettoo ma ko mais boo ko dama ko ñaari xare nee na daal lan moo ñaari ñaari xare yi daal. d'accord. voilà loolu laaj laaj laaj boobu laaj yooyu la woon daal ba pare bi ñu bi ñu yónnee rek waa opération mu Fay Jëf. Mhm. waaw ñu ngi leen nuyu leen jaar di leen nuyu bu baax ñoom ñëpp. jërëjëf Doro. waaw salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu sëñ Mbacke mooy war a nekk ku mujj tey ci mission bi ci woote yi kon nañu tëgg laaj jox ko saas bi yaakaar naa loolu doo yàgg nga des waat allah ñu ngi ñu ci tontu incha allah. dëgg bi leen toxal si nekk déglu fa jëm duñ fa yàgg dañu ñëw rek la ci milieu bi ñu ànd ak ñun ci jataay bi ci alkitab ñu déglu leen ti del siwaat jërëgéen jëf ci ànd beeg si defem seen rajo bi ngeen xoolee seen monteur 10 heures jot na ba tekk ñeent fukki simili oustaz Alioune kon li ci tege mooy jaajëfal la bu baax jaajëfal tam sunu mbokki sponsor yooyu Mbàkke nga xamante ne wax dëgg yàlla xoromal nañu émission bi lool te doolee nañu ko. Mhm, mhm. waaye jiital te nag suñu frère sunu mag suñu magum daara. suñu lépp sëñ Aliou Lo. loo yéen boobu waaw lob bu maam jaar. <laughs> ndeysaan ñu ngi koy nuyu di ko nuyu di jël nuyu bi ko te ci loo xam sa comme ni ko Oustaz ubbee. ndeysaan mu jotal ñu ko personel bi yëpp ndax euh, ja jàmbaar la. Mhm, wallaay di nuyu itam ñi ci des ñëpp ñu topp seen ginnaaw. yal na yàlla barkeel leen. amiin amiin te defar seen chiffre d'affaires. amiin li ñu séntu ci émission bi yàlla lu ci yàlla defar. allahumma amin tabarakallahu mhm. Mhm. tabarakallah am na solo Oustaz jërëjëf ñu jaajëfal ko ni ko Oustaz Mbaye waxee waa loobu maam jaara noonu itam lañ ko defee waa Madaar ñi nga xam ne ñoom ci sponsor yi lañ bokk mhm. defee noonu itam ñi nga xam ne ñooy seen karaw kër xaadim ak waa fari fari industriel Euh, fari industrie rek la waaw industrie lañ ma wax fari industrie. mooy ndoxu mooy ndoxu waalo waaw mooy ndoxu waalo suñ jigéen boobu euh, ndoxu waalo tàngal bége ak. Euh, pëns pëns mooy indi yooyu am solo yooyu di ko jàppee ci liggéey bi. oustaz ñu jaajëfal leen. Mm-hmm. Imaali. waaw kay jaajëfal bu baax Aliou bu baax rek kon liggéeyam mbokk yi nga xamante ne ñooy jaar ci buum gi. te mënuñoo jàll. Mm-hmm. nga xam ne ni daanaka sous forme de sponsor la ñoom itam. am na ñoo xamante ne lu mu gàtt gàtt daañu tocc tocc suñu duggee baax na bu ñu duggul baax na. Mm-hmm. kon ñu sant leen baax te gërëm leen. Mm-hmm. ñëw kon ci ñi nga xamante ne ñoo jàll te laaj. Mm-hmm. oustaz. suñu mbokk mu baax ma leen di tukkulóoru bàyyi. moo jëkk a jàll ci buum gi. ñëw na ñaar yoon sax. di dëggal li mu bëgg laaj. waaye laaj mu njëkk mi ngi ci ngay delloo ci alquran. ci suratu nisaa yi ay 93. 93 nag tombé tolloo fi sunu borom subhaanahu wa taala di waxe ni bismillahi rahmaani rahim wa man yaqtul muminan mutaamidan fa jazaauhu jahannama xaalidan fiiha wa gadiba allahu alayhi wa laanahu wa aadda lahu azaban azima bismillahi rahmaani rahim subhaanaka laa ilma lanaa illaa maa allamtanaa innaka anta alimul hakim foofu oustaz Alioune sunu borom subhaanahu wa taala day wax ci rey mhm. day wax ci rey rey bëgg noo jàngal ne rey mhm. moom moo moom moo ko war a féetewoo mhm. képp koo xam ne ki yaa ngi rey ren di sax ngay def bu dee xar waaye rey moom yàlla yow nag da ngay ren tax doo doo dugg ñu naan rey na xar ma ren na xar ma la ñuy wax rey moom nag dafa am tayeef gu niru tey mhm. ak guñ tayut moom rey moom rey mhm. kon ñetti xaaja am na sax ñu koy te geneen ñu ko tuddee gu euh, tey gu niru mhm. xam rey gu tey ak gu guñ tey ak gu niru guñ tey xaal bu nit ki reyee rey goo xam ne moo ko tey moo ko tey am na lu ci borom gàll su fekkee tey ko am na luñ ca gàll. bu niroog tey am na luñ ca gàll. niroog tey mën nga jenn waaye danaa la rey. waaw daal di koy xëpp suuf koy sadd aw dàll mu dee. xam nga dàll daawul ñu ne niroog tey. moom tam moo am gi nga xam ne teyu ko nag mooy ko doon dawal oto mu daanu. te ñu seet ne daanu ga du tayeef yooyu mënti di tey goo xam ne gi du tey waaye nee na ci rey nit wa man yaqtul muminan mutaamidan koo ci xam ne yaa tey rey gi yaa tey gi jël nit ne ko deqaleen di xam nga ne yaa ko tey jël nit taal ko yaa ko tey am déet jël paak bojj ko nit yaa ko tey nee ko ko def xaw ma loolu sama waa yow di atte xaw ma ko. Mhm. maanaam ba ngeen baal ci baat bi. Mhm. laaju ma ko. Mhm. laaju ma lu ci avocat yi di wax. laajuma lu ci juge di wax man mii nga xam ne. danañ ma la yët. moom moom mooy wax peenam. waaw mu ne man mii nga xam ne daañu ma la yët. bi si nga ñëw say mbokk takk say tànk. takk say loxo sànni say bën-bën. gas am pax bu mu xóot. indil ma la. fa jazaaw jahannam la ma lay fay mooy jahannam hmm. te loolu mbàkki kenn munu ca fa fecc moom allahu akbar inna rabbaka hmm. labil mirsad la ilaha hmm. illallah inna ila rabbika rujaa allahu akbar moom nag moo xam nag waa penc ma luñ cay wax assemblée ñoom luñ cay wax ak tekkat yi moom daal man loolu moom man yittelu ma waaw daañ ma la yót rek <laughs> maa ngi lay xaar maa ngi lay xaar rek daañ <laughs> allahu akbar nga xam ne ginnaaw mënoo fexe ba doo bañ a dem bay bon nga bàyyi xel lool rek. gannaaw dem saako nee na bokkatu ma bokkatu ma lu la tee dem. ah moom nag daal. fa jasaawu jahannam benn. Mm, mm. xaalidan fiihaa du ca jóg. Mm, waxadiba laahu alayhi mere naa ko. wala anahu rëbb ko. wa adalu azaban azima denc naa ko duma yu rëy ci laaj mbokk bu am solo boobu. macha allah. allahu wala anahu mhm. te jaxanama jiitu mhm. xaalidan ci la ba jaxanama benn mhm. xaalidan benn ñaar waa xaadima ñett laanahu ñeent waa adalahu azaba si ma yaakaaroon jaxanama rek doyoon na boole na yëpp ah kon suñu borom xam nga <laughs> xam nga ne bi mu nëbb kay moo ma ci jaaxal mu wax mu waa ji lu xam ni kon c'est très dangereux te très grave li mu ko dig naan waa adalahu azaban alima la gannaaw mu mu loolu daa gën a rëy jahannama moo tax. Ah? am na lu gën a rëy jahannama. ah waaw nga xam ne ay ay kii lay doon. ay xeeti affaire ci biir kasab jahannama bi. jahannama dañoo wax ni ci sawara yu xaw yi sedd la bokk. waaw loolu. waaw <laughs> naa sedd na. waaw de. <laughs> dégg naa ko moom kay na ci dégg. waaw loolu wax. gars yi waaw dañoo tanante di. dañoo tanante naaraan talal waaw ci tàngee la bokk. waaw. <laughs> jahannama baat bi moo ñàng rek. très bien <laughs> kon Sall rek li ci tàgg mooy. <laughs> yàlla ñu dem dellu si di ñëw seen ñu deuxième laajam incha allah. kon bi leen toxal seen ak déglu. دائما أبدا دائما أبدا jërëjëf ci ànd bi ci Sud FM seen rajo ñaari simili ba ñett mënut àgg si ci 11h oustaz Alioune lu ci tege. xanaa yëgale laaju tukkulóoru baay yooyu suñu mhm, ci surtout nisaay waaye kon dëgg rey nit Mbàkke eh, mhm. lu jara moytu la te tey ko wallaay wallaay waaw. yow sax rey gi nuru rey gi nuru tey te du teef ki nga nekk dinaa la rey far nga gis sa loxo rek laal ko. ban ban acte la am. waaw loolu su boobaa da ngay joxe ndàmpaay. waaye mbokkam ngay jox téeméeri giléem ah yu sëkk <coughs> te téeméeri giléem yi bëgg nañu <coughs> yu yi nekk jigéen te bëgg nañu ñu ëmb ci jamono jooju mm-hmm. ak say bokk ngeen ànd wut téeméeri giléem mm-hmm. ngeen dem Mauritanie mm-hmm. ñeen fukk yëpp ëmb waaw ah, ngeen dem Mauritanie waxaale fa giléem lu muy jar ñu wax leen ne cent giléem temps la gileem gu ëmb gu jigéen lu muy jar ñu ne la temps la. Mhm. nga booy loolu ci xaalis lépp ñëw jox ko ki nga rey te tëyoo ko. waaw akbar <laughs> boobay ki ko tëyut. waaw <laughs> boobay ki ko tëyut. waaw ki ko tëy bu ñu ko doxalee fii da nga gis ko dawal taxaw ne xale yi puus damay jàll. xuus mhm. seen da ngay wàcc ne xale yi puus leen damay jàll. waaw wax ak ñoom daan ndax ñaari boo ti boo ni tëll moom su boobaa su kaar bi mën nga ko jaay. ba noppi mm. doo am téeméeri gi. doo ko am mukk jaga njaay yeeg dawalkat yëpp kon su boobaa noonu la moom sax bu dee ci genre suñu genre sëfoor yi nga xam ne daanaka li ñu def mënoo ko wóotaay ko ndax daw te daw ci digg tali bi yor oto bu mag dinaan téere réer mu wóor na fi waroo fee yenn xel yi. ba nga sa Oustaz Alioune. Mm-hmm, mm-hmm. mm. benn ab rond point. <laughs> waaw yooyu moom ak tayeef la. loolu tayeef la. Mm. bu dee bu dee nit ki xamoon na ko ba noppi def ko ndax yàkkamte yooyu moom léegi ñi ci jaayu sañ-sañ de waaw bur burle fooy ba noppi yaru yaru nit yaa ko yaa kooku moom oh. <laughs> ndeysaan naka moom. <laughs> ñu dem waaw ndax kay dem te ñëw rek incha allah. kon bu leen toxal si nag déglu fañ jëm duñ fa yàgg incha allah ni ko sax Alioune di wax. lil xalqi irham bi abdin yastajiru bikum ya rahmatan ursilat min rabbina alxakami. Allah salli wa sallim daiman abadan. على حبيبك الخير للخلق كلهم للخلق ارحم بعابد ضاق مذهبه إلا إليك سريعا فارج الهمم jën jërëjëf ci ànd bi ak Sud FM seen rajo bi ñu xoolee seen montre onze heures na ba teg treize wala quatorze minutes fii ci studio bi ñu war a àggali nag li nga xam ne mooy laaj yi tey nag tabarkalla li bref fi amut moo tax laaj yi takku macha allah dem nañ ba daanaka ci ñaar fukki laaj oustaz Alioune loolu ci tegee. jaajëfal bu baax euh, Aliou jara rédacteur en chef ak Serigne Maodo Malick Faye ci xabaar yooyu nga xamante ni ñoom doon tënk kon ñu xaar rédaction bi rek fii ak douze heures ci français treize ci wolof mu gën a yaatal incha allah. Mm-hmm. Mbacke sëñ Mbacke incha allah léegi kon ñu daal ñëw kon continuer laaj tukulóoru baay boobu. Mhm. oustaz euh, tukulóoru gi ginnaaw laaj moom mu doon laaj surtout ni saa mhm. euh, laajaat na beneen laaj ni euh, kan mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam mhm. ndax daawoon na dund yor lépp wala dafa pauvroon comme ñëpp bu dee dafa pauvroon comme ñëpp naka yenn jumtuwaay la jëfandikoo ba nit ñëpp topp ko. jërëjëf laaj na laaj bu rëy laaj bu rëy te am solo. alayhi salaatu salaam ba demee solul kaf ba muy jeex sunu borom daf ko def la benn déclaration ni ko oustaz Ibrahima Khalilou di jàngale daf na ko lii moom yaa koy déclareel sa bopp du mën naa la ko waxal waaye du la ko waxal <laughs> xul xul hmm. innama ana basharun mithlukum yuuhaa ilayya waxal nit ñi nga leen mbindeef laa ni yéen Mm-hmm. di woy sama yaay di sama baay mm-hmm. waaw di sama aaw di woy sama ñaareel damay xëy di joxe dépense comme yéen añ ak réer ak ndékki comme yéen mm-hmm. waaw basharun mislukum tey foofu la jëm donc kon li daan dal nit ñi moo daan dal alayhi salaatu salaam waraawadulhul jibaalu summa min sahabin dégg ngeen ko <laughs> ndeysaan waaw suñu yaay Aysa nee na daan nañu gis weer wi gisaat ko gisaat ko muy ñetti weer wala ñaari weer yu toftala yoo xam ne kër gi cin du fi tàkk du añ mm-hmm. du du ndékki mm-hmm. naan ndox lekk tendrement ndax alayhi su fekkoon dafa bëgg àdduna nit ñi duñ ci jot mm-hmm. su bëggoon àdduna nit ñi duñ ci jot waaw ma sukkuran ci laajum bu am solo boobu jërëjëf torkal la ci tontu yu am solo yooyu sëñ Mbacke ki ci tooltu mooy Maleye Kane di Maleye moom dafa ziar rek indi nuyoo bégit nag ci bisam boobu nga xam ne mi ngi ci mi ngi doon wax léegi suñu Mbàkke mhm. am na solo oustaz ñu jaajëfal ko baax nuyu ko soppe boobu di Maleye Kane nekk foofu ci eh, Malika mhm. eh, ki mooy musaa Diallo Moussa Diallo Sànnaar moom de indi na ab laaj oustaz ñaari laaj sax eh, benn baa nga ca suratu Ruum di ayab alquran mu ne aaya 54 ay 54 ci suuratu Ruum mooy tolloog suñu borom subhaanahu wa taala di waxee naan allahu alladi xalaqakum min daxfin summa jaala min baadi daxfin xuwatan summa jaala min baadi xuwatan dax sum xuwatin daxfan wa sayba yaxluqu maa yashaau wa alimul xabir jërëjëf euh, suñu borom foofu ci laay jooju suñu borom foofu ci laay jooju dafiy jàngale euh, état bu dunduk nit ak niñ ko séddalee ci ay pàcc-pàcc edda bu junni nit ak ni ñu ko siddalee ci ay pàcc-pàcc doomu aadama bu nekk yàlla daf ko bind min daaf jële ko ci daaf yóbbu ko ci xuwa jële ko ci xuwa delloo ko ci daaf bu àgg ci daafum ñaar bi nag wasee ba day bee jaaw daafu bu njëkk bi du ànd ak bee ñaar bi day ànd waaw noonu la doomu aadama noonu la ko yàlla di bindee léegi nag li li tax mu wax ko wax ji dafa bëgg ci diggante ñaari daaf yooyu xuwa ba ci nekk nit ki exploité ko bala koo ñàkk. waaw ci lay sëmp kër. ci lay denc soxna. ci lay euh, ci lay ci lay ci lay ci lay. léegi su xaw boobu xasee weesu te defu ko rek bu daaf bay ñëw indaale ba jaaw rek. tabarakallahu la cay teg mooy ba moytul dem hôpital miin hôpital ila morgo wa min morgo ila morgo jàkka. wa min morgo jàkka ilal xabri. mu jeex mu jeex takk. waaw. Mm-hmm. loolu xalaat ko. xam nga. wallaahu la si xalaqakum min kon daal mooy nag yaxluqu maa yashaa. Mm-hmm, mm-hmm. yaxluqu maa yashaa mm-hmm. wa huwa al alimul qadir. mooy ko xam ki te du sonn du yox yoxi. amul feet. kullu yawmin wa fii shaani. ndeysaan amul feet wa kon kon bu ci nekk. bu ñu toll rek. am na lu mu war a liggéey. am lu war a bàyyi xel. saa boo jógee ci étape rek. Hmm. dugg nga étape. te itam ni ko oustaz waxee rek min hôpital. ilaa morgo ñun morgo ilaa hôpital morgo jàkk ila ilaa morgo xabru kon nag jar na bàyyi xel mm-hmm. kon kenn saxu fi jërëjëf tarkalla am na solo ñu jaajëfal ko baax sëñ Doro sëñ euh, Moussa Diallo ci laajam bu am solo boobu mm-hmm. oustaz teg na ci beneen laaj jëmale ko ci Seex euh, Aji Malik Si radiyallahu anhu mm-hmm. nee na bëggoon na nga ñëwal ko lenn ci dund euh, góor gu baax googu jërëjëf xanaa ñëwal ko ci ci dund gi tey jii rek ci ku bañoon aada la ñu ñëwal ko ne moom Cheikh El Hadj Malick ku bañoon aada la. radiyallahu taala waaw xeex na ci ba tabarkalla. aada. nga xam ne aada mooy ñëw fekk ku ne ci sharia. aada ñëw yàq la ngay def. waaw waaw nit ñi lépp. da cheikh sëñ daana wax ni demoon nañ ba Sénégal ku dul yëy guro sax dañuy def ne doo borom barke ndax aada rek nga xam ne boo bëggee guro yëy boo bëggul yëy yax nag <laughs> boo bëggee bu bëggee di sàq mi tabarkala ci biir nit ñi ndax ñu xam ne yow boroom barke nga ah, kenn mosu koo gis kenn mosu gis loolu koy <laughs> kon nag maam Cheikh xaaj Malick ci roy ko hmm. nan jël rek bañoon aada la hmm. ba sukkuran ci laajam ba am solo bi hmm. tabarkalla am na solo jërëjëf Oustaz ñu jaajëfal ko loolu moo nekkoon laaj yi nga xam ne moom la mbokk mi indi. jërëjëf mbokk mi topp mooy taalibe Cheikh. Mhm. Euh, sopp Cheikh Sidil Maxtaar Mbacke radiyallahu taala anhu mhm. ginnaaw nuyu yu mu indi yëpp nag nee na ci da jàng ci burdu bi démb. Mhm. waaye gis na ni daal. bunt bi doon jàng démb dafa am foofu Mouhamadul Bachir egg ba àgg ci naan wasal xunaynan wasal badran. lay desal mu doon laaj nag étape yooyu. lan lan ban effet ci nekk. Euh, jërëjëf. téere bu am solo boobu. Hmm. Euh, bi muy àgg ci wasal xunaynan wasal badran. Hmm. boobu mi ngi waxtaan ci jihaad yonent bi. sallallahu alayhi wa sallam alayhi salaatu wa salaam. Hmm. ne boobu boobu nga xam ak njàmbaaram. ba nga xam ne du dellu ginnaaw. ca min kulli wasfin xamidin. oh. ginnaaw du dellu ginnaaw nag. boo bëggee xam ne du dellu ginnaaw. laaj ko Xunayn. Xunayn ab xare la. ndeysaan bu tàng jir. Mhm. boo xam ne fañ koy defee dafa sori woon. Mhm. te toll ci période mbay mi di ñor. Mhm. waaw. ñene ci seen tool ya. ak a dagg ga tax ak a defar seen i kër. ñëpp daanaka joxe ngant. ca la ñett ñu joxe woon ngant te amuñu ngant. sunu borom pinee leen pini métti ba. waaye keroog ba xare ba métti ba métti suñu mbàkk. saxaaba yi bi. bali méttee hmm. dañu ñëw di làqu ci yonent bi alayhi salaatu salaam sallallahu alayhi wa sallam sang ba ca Madina waaw Moustapha kenn musu koo gàññi ci xare mu dem ñibbi benn nga gàññi ci commencement bi mu récupéré ko ci fin bi hmm. mu ne nu nga ko laaj wax ne rek laaj ko Badar hmm. laaj ko Badar la di xare bi nga xam ne mooy xare mooy xare ñu ko waxati guerre mondiale bu l'islam waaw première guerre mondiale bu l'islam <laughs> moo tax keroog ba ci jógee ba ñibbi si ba ñu jub dëkk ba rek yonent bi ne ne diw mu naa mën na ko demal quartier sàngam nga leen duma nañ gaaña hmm. yow diim demal quartier sàngam jigéen ña génn sar xolle yonent bi ko laa ilaaha illallaah suñu borom tekki nag yéen nag duutuma leen mere yàlla tabe xeex ba dara hmm. moom duutuma leen mere ndeysaan samay xarit ngeen duutuma leen mere waaw waaw li ngeen def daa garaaw nag guerre mondiale première guerre hmm. mondiale première victoire moo tax am na benn waa benn waaj sax moo sa bind lettre di yàq benn plan yonent bi alayhi salaam hmm. waaw yàlla ngir comme def na lu tuma leen mere hmm. mu ne ko yaay lu si na amono te nga bañ a def nangam wallaay wallaay oh. wallaay bu leen ma weddi sama bopp <laughs> xaatim tubal da waaw tuqi sa bi wax doo ko ma tey tey waay ñu fekke woon ñu fekke woon xare badar yooyu ñoom ñooy seefu jullit yëpp ndax loolee ñu fekke woon ñëpp dëgg la gis nga bu nit ñi masaan toog ni bañ toog bay tàmbali waxtaan mm. ku jóge Badar ñëw mm. non il faut am koo ko xajal lay ndeysaan ah, loolu <laughs> waaw saqila lakum te fasahu fil majalis mm. ah. fasahu te ñoom la wàccoon lay ndeysaan yof say laaw lakum wa saqila lakum unzu même buñ waxul pour sax xanaa ne la jógal diw toog te mu fekke Badar bu bu la seetaan a mukk nga naan du ma jóg. ndeysaan boo ko defee def musiba yàlla mere la. soo fa nag suñ mag ñi am lu jàng lu bari bari. ba tax seen place yi. ba ñëw yooyu di wa lazina utul ilma darajaat. ndeysaan allahu akbar ndeysaan. jërëjëf euh, taalibe Seex. <laughs> laaj mbaam solo boobu. ndeysaan dégg naa sax sëñ Tuubaa sëñ bu mag bi. waaw bi bi mu ko waaj dégg naa ci ñëpp laan mu ni. Euh, wan nga ko yàlla wanoon xëy xéewali ahlu badar yi. Mm-hmm. allahu akbar. Mm-hmm. ak nañu jege woon yonent bi sallallahu alayhi wasallam nañu nañu woon. taxoon na mu ñaanoon yàlla defal ko lool. gis nga kon badar macha allah. badar badar ngóog. wallaay cër yi yemuñu de. Ah, macha allah ma cër yi yemuñu macha allah <laughs> du ma seem. macha la gën nag mooy ku ne nga nangal ko cër. waaw kay. Mm-hmm. waaw. xañu cër baaxut. ndeysaan. añaan ni cëram baaxut. dëgg la. allahu akbar. maam si Tuubaa nee na. boo toogee kuñ naan sëriñ la ak du sëriñ. Mm-hmm. ni nga koy xam ma tuddal moroomu sëriñam ci wetam. Mm-hmm. ndeysaan. foo toogee fuñ naan kii sëriñ la ak du sëriñ. Mm-hmm. tuddal moroomu sëriñam ci wetam tuddal ci wetam. ndeysaan. bu naan la ku baax nga noonu. jàppal ku yiwa nga noonu toogal te jàpp. waaye bu ca tegee baat baaxut. jëlal seet daal te tuxu. ndax di mu tëdd la tardel. lu wér a wér. waaw <laughs> yéeme na. wér a eh, ak bari léegi. kenn mësu koo gis. formation bu ne defal nañu. defal na ñu ko ñun kay ñoo kii rek. yàlla na yàlla fayal ñu. amiin yaa rabbal alamin. te ay ba tey ñu deuxième laajam mooy soxna si. Mhm. nee na yonent bi sallam bi ñu dem ci riñaan gi. Mhm. dem na ba àgg ci kaw ñuy dafa dajale dañu dajale yonent yi aadama nga fa yëpp mu jiit leen julli. waaw mu leen laaj ban julli la leen jiite. Mhm. te bu suboo ju julli wàccagul. waaw de baatu julli. Hmm. baatu julli mhm. tekkiwul allah akbar rabbana walaka lam samela li man hamdu képp mhm, mhm. assalaatu qurbatun wa tawassulun wa duaaun ndeysaan kon baatu bu ko tekkee rek allahu akbar samela li tax boobu julli di julli julli nag di julli kooku du jiit na leen rek am ndaje mu mag a mag ndaje nga xam ne euh, assemblée générale la wala leneen lu mu tudd loolu lañ tuddee julli est ndax ña ci jël kàddu jël ca kàddu bañ noppee mu tënk kàddu ya yóbbu nag dossier bi yët ko sunu borom. Mhm. mu tàmpanal ko ca nag inna diine indi la islam mu doxal ngeen góorgóorlu. Mhm. Mhm. waaw. ok. est-ce que jërëjëf sukran ci tontu yooyu sëñ Mbacke yaakaar naa ne loolu moo doon laaju taaliba Cheikh soppe mhm. si Diel Maxtaar jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal baax a baax moom taaliba Cheikh moomu ci laajam boo am solo boobu oustaz Alioune ki ci topp mooy xalilu kan mm, moom de oustaz ma nga fële ca Paris di auditeuru jotaay bi mm. indi na ab laaj boo xamante ne ma ngi cee sóoratu Yunus mm-hmm. Yunus aaya cinquante huit waaye aaya jëm joxoñ bopp aaya ja xam naa waaw moom la sax mooy xul bi fadlillahi wa bi rahmatihi mm-hmm. fa bi dalika fal yafraxu huwa xayrun mimma yajmaun ndeysaan hmm, moom lu bëgg nga tekkil ko ko waaw ji Mbàkke tekkee gu ma ko ah, man sama yaram sax ngi daw <laughs> ndeysaan Mbàkke ah. yéegal ci laay ju ko tiim acca ju ko tiim oustaz yaa yoon hmm. yoon naasu ah. hmm. ee eh, yéen nit ñi fii nag Mbàkke waxul yaa lu si na amanu naas loo yéen nit ñi kay sama borom ñi nite te ñàkk guñ seen xel ñu àdduna jaaxalagut ba ñu nangi faaw laa ilaha illallah yéen ñi toppeegu seytaane xad mm-hmm. jaatkum mawisa may leen nopp waaraat yi wii di bëgg ñëw mm-hmm. min rabbikum ci seen borom la jóge mm-hmm. jógewul fenn foofu la jóge kenn wàcc ci kaw suuf yéen nit ñi kooku bëgg a waaraate wa shifaun saafara la médicament la mm. li ma fi sudur li nekk ci seen dënn yi ba ngeen di bañantee ko soxorante ndeysaan loolu lay faj waxu daan yërman waxu daan njub la mhm. orientation la yoo xam ne comme teg ca yoon wa nga jaar mhm. yoon waay gën a gàtt yoon wu keneen jaar wu sallallahu alayhi wa sallam mm. cay waaraate woowu wa rahma mhm. wa la lil mu'minina ñi gëm ñi gëm ne yërmande la ndax kaar bi ñi gëm ne ci ma xam mbaako la jëm ñoom doo nga ciy dugg Mm-hmm. waaw mu ne xul mm-hmm. waxa waxatil yow Muhammad waxal mu waa pénc mi mm-hmm. ne leen bi fadlillaahi wa rahmati baaxu yàlla ak yërmandeem moo tax mu yónnee leen kooku mu leen yónnee yónnee leen loolu mu leen yónnee kooku ak loolu waaw kooku mu leen yónnee mu yónnent bi loolu mu leen yónnee mooy alxuraan ji mm-hmm. Mm-hmm. fa bisaalika fal yafarahu bu amee lañ jara lii rekk a jara kontaan ndeysaan ndeysaan huwa lii nag mm. xayru mimma yajmauna mm. lu ngeen mën a dajale lii ko gën mm-hmm. sallallahu alayhi wa sallam Moustapha lu waay jàpp rek bàyyi leen ko loolu te jàpp lii te maye groupe wa shukran ci laajam ba am solo bi. macha allah macha allah jërëjëf zalika fal yafrahu huwa xayrun mimma yajmaun. Oustaz Alioune jërëjëf kooku mooy suñ mbokk Xalilu Kan Xalilulahi Kan. Hmm. Xaasim Mbay Mbàkke Bawol moo ci topp imaam yi. jërëjëf Xalilulahi Kan tabarkalla Xalilu moom nitu daara la dëgg ndax fii mu génn moom. Hmm. dafa garaaw lool. kon Xalilu jërëjëf. Hmm. Eh, Xaasim Mbay nag mooy suñu mbokk mbaax ma la nekkal ñu ca. 94 91. ki 93 point 2. 93 point 2. mooy nekk foofu ca Sud FM Mbàkke moom day nee na ginnaaw ziar rek nuyu yi. 91 point 2. 91 point 2 allah. ok dëgg la su defee Mbacke. <laughs> wallaay ndeysaan. gouverneur Mbacke. <laughs> mooy gouverneur. dafa lay tooñ. Ah, d' euh, mu ni rey gu mag rey gu bari yi nga xamante ni nit ñaa koy reyante. Mm-hmm. est-ce que l'islam waajaloon na ko ak bu ko waajalee lan la ko laajal ak ñun lan mooy ci sunu sunu sunu saafara. waajaloon na ko moo tax mu yónni woon Seydina Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam. ndax mu jëlee ñu ci nii ñu mel yóbbu ñu ci ni bëgg nu mel ko. bu nu ko royoon ca nañ mel na mel doo dégg ko rey kenn. Mhm. dëgg la de waaw. Mhm. benn ñaaral ba bu ñu ko royoon ca lëm indi. Mhm. rey jóg fi. ndax su boobaa ku rey day xam ne dañ koy rey te ko xam ne boo rey dañ lay rey doo rey. dëgg la. loolu nag alxuraan a ko waxtu yàlla ko waat. Hmm. kon yaa préparé nañ kon pour li jog fi waaw. Mm-hmm. wasu kuraan ci laaj maam sala boobu si xaasim mbay ci mbàkke baal warkal jërëjëf xaasim mbay kon ci topp mooy aji mariam aji mariam oustaz ñu ngi am solo boobu moom itam ñëw na indi ab laajam nee na ci bindu démb yi déggoon na ci ku bëgg a gàmmoo këram mm-hmm. nga xamante ne daal xëy na am na ngantul dem wala noonu la bëgg gàmmoo moom mm-hmm. nga waxoon ko ne ko na bëgg na njaboot gi yëg ne tey la gàmm ak yi nga xam ne moo ci aju nee na nag bu fekkee xale yi xëy na mën nañoo liir alxuraan jàng nañ dara mu war leen a dajale nag ñoom ñëpp ci guddi gàmm gi wala ci bis bi ngir njëriñu gàmm loo koy digal. waaw li ma koy digal mooy bu mu jàpp ne da leen di firil alxuraan. déedéet bu mu jàpp ne da leen di firil xasiida. déedéet. da koy def gàmmu gone. waaw. luy gàmmu defal leen yu sedd defal leen yu neex. nangam nangam ba gone yi ni yaay lu xew. waaw mu ne la wax baat bu baat bu woyof rek. Mm-hmm. mooy dafa am ku judd woon tey. Mm-hmm. moom la feete juddoom bi. nangam nangam ko defee xale yi jàpp loola. gàmmu gone la. <laughs> waaw message daa message boo xam ne boo dajalee gone yi noonu ngay gàmmoog ñoom. gisuloo 31 décembre le 24 jàppale 31. waaw dëkk bii mel. waaw fipp ay lamp. waaw waaw. ak kado yi ak kado yi. làmp yooyu mi ngi wax ak kado yi. Mhm. message la. très bien kado yi ñu jox xale yi pitaar yi. très bien. loolu loolu rek a yëf yi nag. Mhm. Mhm. xale bi bu bis ba bu ñëwee bu ñëwaatee dañuy yàkkamtaat mu ñëwaat. loolu lay affaire bi. Mhm. Mhm. waaw wax nga dëgg de. kon nag moom noonu am na benn laaj bu ñu teg nee da nga def formation journaliste. <laughs> bisimilah nee ko nee ko waaw. waaw. nee ko waaw gis nga tubaab bi. Mhm. mooy fexe ba ne diw ci nangam la spécialisé wu. la ca def nag mu nëbb ko ko. dongob daara nag. alxuraan daa doon loo xam ne foo ko mu fekk la fa. te alxuraan. Mhm. gisoo ni suñ war a lii alxuraan. waaw noonu la àll bi. Mhm. àll bi bu fekkoon ne ku soxla dimb cël ma xa bàkkul dong ngay dem kon àdduna tukki. waaw ba am na ko. bu fekkee ku soxla sump taset dong ngay dem kon àdduna tukki. maa la wax ni mhm. yàlla jaxase yëpp nag. loo soxla dem ko loolu la def alxuraan. Moussa yàlla xam na ne xoolal rek su fekkoon ne yàlla dafa def tey jigéen ñi. jigéen ñi ëpp góor ñi ñaari yoon. kon léegi ku yor sa jëkkër nit ñëw na la ay. gisaan wala day góor ñëpp jigéen ñaari yoon ah, ba nga ne dangay wër ba silmaxa doo gis koo dakk mm-hmm. loolu nag nag moo tax bi bi fekkee suñ mbàkke dafa jàng lu mel ni sóoratul xasas mm-hmm. jàng lu xisab muusa ak nàngam mm-hmm. alxuraan nga jàng ko yu mel noonu dana la defal formation boo xam ne Euh, tabarkàlla euh, journaliste professionnel yi. Mhm. ah, ah doo leen ñee. Mhm. dëgg la dëgg la waaw ah, doo leen ñee. félicitations sëñ <laughs> Mbacke. merci di courage. ndeysaan yéen yéen moom félicitation. a moom félicitation geeg yooyu xam naa tabarkàlla. am na solo nga jaar daa gudd nga ni rek yàgg ci suñu wet rek mën naa tax <laughs> tabarkàlla. <laughs> ay ca imaam lii am na solo trop tabarkàlla alxuraan day def nit ki multidimensionnel. Mhm, macha allah. waaw multidimensionnel dafa am solo. mu def analyse politique analyse nangam. kenn dañu naan ci. gis loolu sa albidaaya. Mm, albidaaya suñu xibaaru daara ji suñu xibaaru daara ji. Mm-hmm. Eh, analyse yu pertinente yi nga ciy def. ci mm-hmm. loolu. daal rek moo ko mën a may. dëgg la dëgg la merci dëgg la macha allah. jërëjëf Mbaye. merci shukran moo ci topp oustaz. mu ne. Ab euh, Abdou Salam nee na. lan mooy baatub julit mooy julit mooy kuy julit. boobu nag moo gën neex a tontu ci laaj. <laughs> kuy jullit waaw abu ah alayhi salaatu salaam daf caa tontu war <laughs> eh. dañu ñëw ne ko man huwal muslim mu ne al muslimu hmm. man salimal muslimuna waaw min lisaanihi ba yadihi ay waaye ndam <laughs> allahu tënk bi mu ñu ko tënkal rek hmm. ab jullit daal moom kii rek ah jullit yi mucc ci loxoom ak làmmiñam kooku jullit la ah Mbàkke ndax loxoog làmmiñ domm ñooy xam xamba aw ay ci pénc bi ay wu fi am du tànk du biir du bakkan du nopp loxoog tànk la lox <laughs> ñaar ñii sëréewuñ jeex na kon nag ki bëgg nekkub jullit na fexe ba téyeb loxoom bu mu ci lor kenn mhm. téew làmmiñ bu mu ci lor kenn daal nekkub jullit rek al muslimu hmm. man salima al muslimuuna min lisaani wa yadi hmm. nun la ñu ko tënkale woon sallallahu alayhi wa sallam man laaj bi neex naa tontu des nag léegi nun ñëpp nu xool na ku ci nekk hmm. sa làmmiñ wi ndax yaa ngi ciy lore sa loxo bi ndax yaa ngi ciy lore waaw bakkee noonu rek lañ koy seetal de bu fekkee eh. mën ngaa jël sa kàddu gi teg ko ci kaw diw jël sa loxo bi teg ko ci kaw diw ah léegi nag seetal sa bopp dëgg la wa shukran ci laaj na bu am solo boobu. dëgg la Abdousalaam. Hmm. macha allah ku ci topp mooy Abdoulaye Guèye ñaari Abdoulaye lañu tegaloo Abdoulaye Guèye ak Abdousalaam ñoo tegaloo moom de nee na daf doon topp Serigne Samba yi mu baax mi. muy ndeysaan jàngale. di waxtaan ci wàllu firi alxuraan ak euh, waajtaay wi ko nit war a jagleel ak xam-xam yi mu war a jàng euh, ba agsi ci firim alxuraan. nee nag am ci yu ko raw mu bëggoon nga ñëwal ko ci daal ndax dafa am ci wàllu firi alxuraan fu nit di jaar ba agsi fa door koo def wala nit mën naa xëy rek di ko def. waaw xam nga man ni ñuy def man Mm-hmm. maag Alaaji eh, Mbaye ci RDV Ablaye Mbaye waaw imaam baax waaw ak eh, oustaz Taïb Sossé mm-hmm. ak ñi mel ni ñun te ne ci rajo yi mm-hmm. ñun li ñuy def mooy nekk liggaay yi firi moo tax ñun duñ soxla jumtukaay yooyu yëpp ñi nga xam ne dañoo bëgg ba nit bind téere nag tafsir ca ñooñu nag ñooy soxla jumtukaay ya la te dégg fiq dégg luxa dégg mantiq dégg arut dégg bayaan dégg usul waaw ko defee kooku ki dégg xam-xam yi ak ñi tege koo koy mën a firi gis nga xaaj Ahmed Demba Sokone ñaata la la téere ba am naa nga mi at daal am na ko firma xamu fukki at ak juróom xamu ñaar fukk waaye listixaar gaa gën a yàgg ah, xaar ngir tàmbali bi mu ko songee bay liggéey nag mu toll fa soxla na téere sàngam mhm. ci sa xamara Fuuti moo ko liggéey te téere baa nga Nigéria tey mu tàggoon ak pour dem. dégg naa sëriñ bu bu bi ne ko dama la koy jëlali mbaa nga bàyyi mu yor la sa kër ba baa ngay ñëw. ndeysaan lii rek. mu ne ko bàyyil kër ga na mel ñuy faraatu may faraatu di ci def. Mm-hmm. te nga jëlal ma ko mu ne ko ah mënuma ci ñàkk def benn. Mm-hmm. Mm-hmm. ndeysaan. <laughs> ah suñ mag ñii. waaw yooyu suñ Mbàkke. kii liggéey bi kii def nga ñëw taxawoo ko noonu. waaw waaw ndax bëgg tiyaaba rek. xam nga oustaz ajjuma ji paase da nga wax wax ju am solo. ndeysaan mu ne lan. mooy bi ñuy wax ci gàmm bidaar ak nangam naam nga ni xam nga kañ la doon garaaw moom moom El Hadj Malick ni day gàmm sëñ Tuubaa ne bi bidaar la. waaw. bu boobaa la doon garaaw mais xoolal doomu soxna yi rek kii bëgg a firi alxuraan. ndeysaan. sëriñ bi ni ko maa koy jëli mbaa ma yoral la sa kër. ba nga ñëw. <laughs> Euh, mag ñee baax waaye. du lu tuuti. lu eh, tuuti lu rëy la. te bu doon tey da ko kon kon yoral kër gi. Mm. <laughs> Ah, waaw waaw ah, mu def. waaw ah, waaw te kon it mu jéem. ah tubarkalla da koy yor tax. yor jërëjëf mbokk moomu Abdoulaye Guèye. Mm-hmm. Euh, rahmatulahi alayhi sëriñ Sam tubarkalla. Mm-hmm. waaw tubarkalla am na solo Oustaz Alioune. Mm-hmm. bu ñoo sori ci loolu ndax léegi tey Pape Sall dina këpp. wallaay ndeysaan sëñ Sam Mbaye moom de ku lu maanaam réussir la mission. waaw ndax liggéeyal yàlla daa wóor ñi defaru ci ginnaawam ci ay mbindam ñoo ëpp ñu defal sax ci jamonoom di ko déglu. loolu nag barke mooy demee noonu. Ablaye Guèye ci topp moo po noppi Oustaz Mbaye sëñ Ndiaga Seck suñu xat bële moo ci topp moom la indi ak ay ñaan. Mhm. sëñ Ablaye Guèye Liberté 6 door cee topp. ok Oustaz sëñ Ndiaga Seck moom dafa indi siyaar rek ndax xol baa sedd ndax ajuma jot mu jéem a dugg indi nooy bokk yi mu nekk ak seen waa bureau. Mhm. ki ci topp nag Oustaz mooy Abdoulaye Dieye Abdoulaye Dieye nee ku bëgg yonent bi sallallahu alayhi dafa war a ànd ak yër war a jàng ak ànd ak jàng waaye bëgg goo xamante ne rek ci jël nga ko teg waaw dëgg la walay sa nafon ala xubbin waaw bila amalin bila amalin wa taabian sunnatal muxtaar taxtani bi hmm. Maodo nee na su fekkee da ngaa bëgg yonent bi niñ koy xamee mooy teg teg sa tànk ca te fam ko tegoon jaar ci lef moom jaar rek ngeen àndi continuer su àggee bu yàggee léegi te nga ne jëf mu la ñëw nga ne ko waaw. wallaay ndeysaan. wa shukran ci laaj bu mu am <laughs> loolu neex am na solo oustaz jërëjëf <laughs> Yatma Mbodj. ma Mbodj moo ci topp oustaz ma ngi ca Njang Mbaam Mbodj euh, ndeysaan moom day nee na ñëw na Sénégal vacances dal na jàmm ma nga këram. tabarkalla ñu ngi koy dalal jàmm ñu nit. Euh, sëñ Yatma nee na oustaz dafa bëggoon daal nga wax ko euh, daal mécceem awoka maanaam avocat ci boppam nan la ko lislaam gise avocat waaw avocat mooy koo xam ne suñu mbàkk bu nu jàppee nit. Mm-hmm. bëgg koo sonal moom mooy ñëw fàttali leen loi yi tax kii wërta sonn mhm. waaw day ñëw fàttali loi yi mhm. dañoo waxoon ne ku rey dañ lay rey mhm. te tey ko avocat ñëw ne mais kii teyu ko waaw kii teyu ko ñu mm. ne ko tax teyu ko mu ne ndaxte nangam ak ki nangam te loi bi nee na nàngam nangam waaw gis nga bu bi suñ borom di àttee di àttee njaaloo dafa wax ni jigéen ki li tee ma li tee ñu rey ko foofu yàlla dafay wut bunt ba mu ko génnale mooy buntu moom bi na giñ waaw mhm. te ñaar ñu giñ am na ko fen mhm. <laughs> ah mais yàlla encaissé na fen yoo xam pour bañ ko ñu rey. bañ ko ñu rey ndeysaan. ndeysaan ak a baax. avocat avocat nun lay def. nga daw tafa ci yàlla rek. kaa nun lay def. Hmm. mooy loi baa ngi nii. Hmm. léegi kii def ne dañ def dañ na def say tey tey dañ koy rey. Hmm. avocat bi ñu ngi ne déedéet. waaw reyu ko. tey teyu ko. teyu ko ñu ne ko dafa mu ne ndaxte nangam nangam di wax nag ci loi yi ñoom seen yooyu. léeg-léeg ñu dem ba génne dossier bi ni kii jaaroon na faan. am na fay fan dos document yaa ngi nii Moussa Gaye moo waxoon ne kii dafa wér a wér di xel mhm. Mhm. loolu la avocat dafa bu ñu ko càggee ne kon avocat mais ci la moo xam ne tabarkàlla ka ci nekk na ko jëm a rafetal rek mhm. macha allah wa shukran am na mais sama laaju bopp la bii moom <laughs> waa léegi bu fekkee ne eh, comme ni rey gi demee nii waaw saa wu ñu rey dañu ni maladie mentale waaw loolu tam bu fekkee dañu dem ba ñooñu am doole ci ku ñu ku ñu rey ni dañu la maladie manto déedéet loolu lislaam dox ne ku ñu rey ñu ne maladie manto moom xam na li tax mu ne man qatala mu'minan mutaammidan moom xam na la xew mm-hmm. est-ce que tey yéeme na ko nag vive les avocats <laughs> am na solo oustaz kooku mooy eh, ki nga oustaz Alioune sëñ Yatma Mbodj bu ñang Ba Mbodj Ibrahima Maroon moo ci topp doon wootee yëmbal waaw Ibrahima Maroon oustaz moo ci topp moom dañu laaj ci xasida Xaaj Malik gi ci ci Taysiir mm-hmm. wa raddini bil qada rabbi musabbirani ala baraayika yaa rahmaanu yaa allah ndeysaan hmm. ngi def tawasul ci hmm. ci sa waaye tey nag ñaar laa bëgg hmm. laa ñaar laa bëgg ma am ko wa raddini bil muy benn bi mooy dama bëgg loo dogalati mu neex ma <laughs> waaw hmm. mu ne ko dama bëgg rek loo dogal te nag mu neex ma. ndeysaan hmm. ndeysaan. dootu fa nekk di diingat. waaw du ma diingat du ma jàmbat du ma onk. Hmm. ndeysaan. mu ne ko benn ak ban mu ne ko mu sabbirani ala balaayika. ndeysaan. dama bëgg yaram wi loo ko teg. ci ma muñ ko. mu ne laaj maa ngi xamul mu doon rek. ah kenn <laughs> tabaarkalla. <laughs> waaw bi bil qadaa rabbi musabbirni ala balaika ya rahmaanu ya allah. incha allah. tilka al amaanatu. tak fii man takun lu muballiqan yaa manul isaala ya allah. isaan isaan. Oh. Oh. ndeysaan. yooyu koo ko may. Hmm. su bëggee àgg bu xëyee àgg. ndeysaan jërëjëf xam ne ay xeeti ñaan la yu muy ñaan noonu mu am solo lool mu ngi fay weesu xasidaam googu mu mm-hmm. tax mu tudde ko wasilatul muna mm-hmm. Mm-hmm. waaw wasilatul muna mooy kaar baa ngi nii mu jëm ca al muna yéeg leen waaw car transport yéeg car transport baa ngi nii yéeg leen mu jëm al muna wallaay ndeysaan ku yéeg dem ku yéeg dem mu ne ko lay til kalaam de dama wajal baax mu ne safóoru kaar bi nag hmm. law lam yadux fi fadail kawni talaatuhu hmm. tabqal bariyatu boo nu yónni wutoon safóoru kaar ba mën a conduire kaar bi hmm. ndeysaan ci àll bi la ñuy dee te kenn sallallahu alayhi wa sallam ay tey jii oustaz xam nga ngeen am jot rek. ba ba xuusal ñu si. il faut nga ban ko nga bañ koo waaj. waaw ba il faut nga jàppale ma a joxul parce que bii moom. <laughs> il nga bañ koo waaj mais il jàppale ma ci. ayca <laughs> euh, kii tam mooy Fatou Dramé. sunu Dramé Kounda boobu Mbaye Mbacke. ndeysaan ñaareel bu ñu tamit bay laaj ci Bordeaux mi tam waaw moom itam ca Bordeaux la ñëw Oustaz ndeysaan ñoom fàttali ne ñu ne ñu ngi ci weeru gàmm ak mbindu yu am solo yooyu neen daal eh, daa bëgg nga ñëwal ko ci Bordeaux waaye rawatina nag buntum ñaareel ba Oustaz waaw <laughs> man na damaa tiimul Bordeaux fii buntum ñaareel ba moo di wan nafsu ka tifli wala dér fa inna amaarati waaw waaw ndeysaan sama sama oyo mbénte gi luy oyo mbénte guy gu mooy guy gu saxut guy gu saxut laa xam nga bu imam bu seen waxut inna nafsi. waaw. Hmm. imaarati. waaw. xam nga lu wax. Hmm. fa inna ima amaarati bisuu'i ma ta'azzam. waaw sama oyo mbénte gi. ndeysaan waaw. te bakkan bi la ci jublu. waaw très bien. sama lu ñàkk njëriñ mu ngoog. ndeysaan. ndeysaan waaw fa inna amaarati bisuu'i. Hmm. mu ne sama oyo mbénte gi waaroo ba léegi. <laughs> ndeysaan eh, eh, kenn mos koo gis. waaw sama oyomante gi waa roogut ba léegi. kenn mos koo gis bi Nasiri Sey bi. ndeysaan mu ne. wala xari bi be jaaw naa taxul mu waaru. ba be jaaw bi waar na ma waar ko taxul mu waaru. Mm-hmm. mu bañ rek. màggat naa kumur fi ne taxul mu waaru. kon boo ci jàppul du baax. te nag wa in taftihu <laughs> yanfati. allahu akbar. boobu loolu lay jàngale. ndeysaan ah. jërëjëf jërëjëf jërëjëf suñu jigéen boobu. Ah. Dramé Kounda boobu daañu ko nag ñebe jaa ngi noonu jëlal. Moussa Ciss Morala suñu mbokk mbaaxu Mbàkke. waaw dafa ñëw rek indi ziar ak nuyu bëgg moom ñu gaaw a rëppatal ndax laaj gaaw a ak ndax technicien baa ngi may kii Aliou Baro non Aliou Barça. Mhm. waaw Aliou Barça. Mm. Aliou Barça oustaz mi ngi noonu euh, nee na daal ndax. Euh, muñ ndax muñ ndax muñ am na fu mu yem. Mm. Mhm. nee ko déedéet nee ko déedéet. li feeg muñoo ba say bokk jéppi la defe na dangaa dof. ndeysaan muñagoo. coy. <laughs> waaw. déggal la maam si wax ca kunkaati man. mu ne lan. wallaahi. Mm-hmm. Hmm? li mu wal boosa. waaw. axtanal xabla laa tuksiri shakwa mm-hmm. ñu ne ko waaw mu ne fa kun mutajallidan xataa mm-hmm. déggal mbàkki xataa <laughs> tasunna naasu annaka munimu ndeysaan lay ndeysaan na nga muñ bu kenn yëg yi lay dal ci métit ba nit ñi defe ne yow amoo métit ci xéewal nga nekk mm-hmm. foofu la muñ jëm mm, waaw <laughs> laa tastaqil bi risqi bul business bul nekk étudiant buy business ndeysaan ndeysaan <laughs> waaw bul ne ci yooyu laa tastaxil bi risqi israb bul waraa mutakaffil risqa la si yataallamu ayca tey ayca ayca ndeysaan ñu jeexal yow jeexal mu ni kii gi ne mu ni ndax njiitu réew dana am jafe-jafe waaw njiitu réew gën a jafe ci bëri jafe-jafe ci àdduna si ni ngay nelaw nii heure bu la neex ak tëdd ak ñoom seen yooyu hmm. bu la neex a jaar pour jënd mango hmm. njiitu réew doo ko sañ ndeysaan wallaay léeg-léeg ma dem forox caaya ba ne ko kiyal ma ci ñeex mi. jeex na wala nga dem may ka. wallaahi. <laughs> njiitum réew sañatul yooyu. sañatul yooyu mu romb fenn. <laughs> ndeysaan. <laughs> ah, ah dégg naa ah. keroog moog avocat yi. Ah. surtout yoonu Fatick wi nga xam ne fi la daan jaar bu muy tul orelu na fi ba tey bu fa jaaree orelu ba toll ci dëkk yooyu. rawatina rawatina su fekkee Moustapha jaar jënd wog bu cere. waaw te fi bi da koy aaye. non ndeysaan xam naa bu àndee soxna mu wokk ko dana ko. <laughs> loolu nag war naa neex nag président loolu il faut nga génn wax ñu ci. il wax ci daal <laughs> waaw. <laughs> Ah. xamoon nga ayu. ayu waaw ndeysaan ayu ba ci kër ga. dafa am luy romb ci mbedd mi di jaay. su ah. ko déggee rek. waaw Rico. Rico la bul tax na kenn mësu ko Rico bu ne piip piip Oustaz Lamin da ngaa bëgg ay xeeti Rico ay galaas ak yooyu. heure bi jot na. ni jeexal nga bañ. tàggoon nga bañ <laughs> nan tàggoo foofu xam naa Mbacke ak laayam bi laajam bi ak Assane Samb ak Dora Sylla ak euh, ñoom euh, seen laaj yi benn la Mbacke Sylla Wadduha la doon laaj nga tëngal ko ko Assane Samb dafa siyaar rek Dora Sylla moo doon ci li yàlla wax yonent bi alayhi salaatu salaam hmm. ba ko may ba mu ko jàngalee dafa ko may feet hmm. te kuy day am feet hmm. waa màkk feet ga jaaxal leen ñu ne ko kala doon tàmbalee jàngal far na la bàyyi suñu borom ne ko maa waddaaka boo ko xalaa sa borom bàyyiwu la te la wala al axiratu xayrul laka min al ula si leçon yu mujj mooy dàqu yu njëkk yi kon nag mu léegi fet gi jax ñu tàmbali njàng macha allah ndeysaan jërëjëf si la nee na lu tax yonent bi xeex hmm. badara hmm. ah? booba yàlla bëgg kàddoom kawe kàddu yëfar yu suufee hmm. nee na beneen xeew la ko fa lii alaka man alaka am bayi na man bayi na dee ci lu leer yaxya <laughs> dund dee dund ci lu am na solo mbokk yi xanaa rek ñu yëkkati jotaay bi foofu oustaz looy indi bu bëccëgee incha maa ngi ci sut Youssouf maa ngi ci Youssouf alayhi salaam mhm. bu guddee dina ñëw ci minbar maag alxaji imam Mor Seck imam Tëngéej bu zéro heure ñëw nañu ñëw nag ci incha allah spécial Tiwaawan xamtu incha allah oustaz boo noppee ci tafsiru Quraanul Karim bi dinañ ànd ak yi ci xamtu tabaarakallaa ñun ñoo ngi ci suratul xujuraat mhm. tey mu war nekk suñu juróomi dars ci teggin ñun war am suñu digganteeg sallallahu alayhi wa sallam lu jub ci wax ju sunu borom lu ci jub du moom ñun ñi la mhm. yàlla naa defar seeni mbir mhm. defar suñuy mbir ci def ci suñuy poos dara assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu